yeneen naa leen umpalew leen nii li ñu tax a uute aljuma ji ñu weesu mooy euh, làqu gi nga xam ni kii di euh, xalif général des Mourides sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké daal dina koy wàccu liggéey ci aljuma bi ñu weesu loolu ñu tax uute ñuy feddali suñu njaal mbooleem Sénégal tey euh, dalal suñu xalif bu bees bi ki nga xamante ni moom mooy sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké te ñaan suñu borom mu oyofal yan bi si boppam nit ki nañu ko waxee nit nañu uutee noone la ñu rombe mbirum Casamance ak la fa xew ñuy massawu njabootuk ña nga xamante ne nii eh bien ñoom ñoo ci faatule waaye tamit di fàttali rek ne mbir la moo xamante ne du ñàkk ba daañu si dellu dellusiwaat ndax it bu ngeen fàttalikoo euh, li nga xamante ni moom moo xew ca Casamance mbir la yoo xamante ni yëpp bu ngeen fàttalikoo junjoon nañ ko fii Euh, ci euh, jàkkaarloo bi professeur it euh, daanaka mel na ni scénario bi daf ko géntoon ndax na mu artoo woon noonu la mbir mi amee woon kon daañu fi dellusiwaat ngir gën koo yaatal tey di fàttali lu jëm ci mbirum responsabilité ci traitement information parce que lu nekk dégg nañ ko ci bi pënd bu wuree gis nañu lu bari nekkul kon mu mel ni euh, euh, ñun ñii di tas xibaar war na nañoo xalaat ne intégrité territoriale moo jiitu ci lépp loo xamante ni ñu ngi koy def ci suñu métier kon ñu gën a responsable ci wàllu woowu. lu mooy loolu yi tamit euh, la nga xam ne moo xew ca université doon na mbir moo xamante ni it ni ki démb eh bien ñu bari ñu ngi koy naxarlu du ñàkkit ba balaa ñuy soobu si waxtaan wi ku nekk ci ñii dina am lu mu ci yàbbi ci baat ka nga xamante ni tamit bokk na ci ñi leen jaboote di ma Ndiaye moom laa njëkk a jox kàddu gi. bu ko defee mu wax la nga xamante ni moo xew ci bërëb boobu yi nan la ko gisee ak lan la ci euh, junj ci wàllu saafara wala it fàggu salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. waa Khalifa li xew université boo d' accord violence moom wax dëgg yàlla képp kuy doomu aadama buy dox. boo yeewoo li ngay njëkk a ñaan mooy jàmm. kon. kenn bëggul violence. mais bu violence bi paasee li xew dem université étudiants yi ñoo na ci dëgg. bu génne violence bi war am étudiants yi ñoo ne ci dëgg sëñ bi nit ki buy jàng nga ne ko am nga bourse bi li nga war di dundee yow yaa toog nga xool nga jox ko deg ko fay bu waxtu jotee tigi fii ku fi liggéeyoon ba weer dee fayuñu la sa salaire nga dégg ñu dégg la hmm. étudiants yi ay doomu aadama la dëkk ci réew mi dañoo war bu weer ñu leen di jox seeni bourse parce que bourse bi du étudiant moo ko déterminé état moo ko déterminé. Hmm. état moo xool nombre bu ñu koy jox ba ni ñii lañ koy jox xool ci budget ne man na ko di ko def vraiment de grâce ñu yor budget bi nañuy fay na nañuy fay étudiants yi seen i bourse à temps. très bien maa ngi ñaan aussi une étudiants yi. Hmm. ñu seet beneen forme lu def créer violence. di ñaan aussi policiers yi parce que aussi dem ci diggu université. jëlee grade lakk ma dóor ko ci ay chambre étudiant teguñu ko fenn. il faut ñu respecter franchise de plus en plus. non franchise sax euh, euh, centre des œuvres bi bokku ci. Hmm. day wax bi bokku ci mais quand booy intervenir pour def maintien de l'ordre waroo créer anarchie parce que ay xale na ci néeg nga jël alakaba doon dóor ko fu mu tàkk mais finalement boo fare vraiment loolu dulu rafetlu ma la parce que aussi il faut policiers yi xam ni étudiants yi du seeni noonu mhm. ay xale la yu faiseur de trouble ñu ñu war leen remettre à l'ordre donc warul ànd ak yenn violence yu métti yi. très bien vice versa. waaw étudiants yi aussi war nañu xam ni si réew mi lañ dëkk. Hmm. lu ñu yàq suñu alal ñun ñu ñàkk yi ñoo koy defaraat. très bien ñu xoolaat seen boo xam si réew mi lañ bokk mais en tout cas li ëpp solo mooy. na ñëpp xam ne li xew université. du problème mu kudd. Hmm. étudiants yi merewuñu kudd. étudiants yi merewuñu rectorat bi. merewuñu personnel ba fay liggéey. buur su leen fayul. et puis Sénégal xam aussi ni. bourse yi du université moo koy fay xam direction des bourses boo xam ne nekku sax ci biir université bi donc et puis direction des bourses aussi hmm. ministère des finances moo koy jox xaalis ah, donc en gros non même rek wax dafa important loolu hmm, hmm. chaîne bi yëpp nañu respecté di fay étudiants yi à temps très bien dinañ la babil ci wàllu woowu pour ñu gën ko yaatal Charles daa betti euh, c'est-à-dire dafa situation boo xamante ne sénégalais war waruñu ko dund mooy parce que policiers yi ay policiers yi ay sénégalais lañu mm-hmm. étudiants yi doon ay sénégalais mm-hmm. bu fekkante ne situation bi dund ko am na koo xamante liggéeyam defu ko mm-hmm. du étudiants yi du policiers yi te loolu nag dafa yàgg mu ngi fiy commencé yàgg ñu tollu si at boo xamante ne xel xel si at bu ñu toll 2018 par rapport ay enjeu politique année préélectorale am na loo xam ne waruñu ko dund maintenant tam dëgg foog ñu koy wax man chaque fois dama leen di wax nii dëgg foog ñu koy wax pour nga fay foog nga am xaalis priorité boo ko amee tam yaay xool say priorité nga fay ko la violence bu ñu xoolee bu baax dëkk bi il faut que ñu xoolaat bu baax suñu dëkk fu ñu jëm làmp yaa ngi fay dëkk bi yaa lamp yaa ngi fay les unes après les autres mhm. ténèbres yaa ngi ñëw violence ak deret ay res très bien donc ñu war nañu xoolaat bu baax a baax merci Charles Papis waaw je tout à fait d'accord mais euh, di rappeler tout simplement que euh, l'État moom mooy perturbateur bi l' état du Sénégal moom hmm. mooy dans ce cas moom mooy parce que moom moom moo ko sookee hmm. parce que c' est des engagements qui ne sont pas respectés et ensuite moom benn réaction boo xamante ne entre guillemets c' est abusé ah l' expression de la violence ni ko ni ñu ko defee ñu jël affaire jugement de valeur ay jugement andi ko ci étudiants yi nga xamante ne ñoo def loolu hmm. mais à la source C'est l'État qui n'a pas respecté ses engagements. Il aurait payé les bourses pour problème du homme. Euh, tu me diras que c'est disproportionné parce que personne ne peut cautionner la, violence. Mm-hmm. dafay andi rek beneen affaire euh, boo xamante ne euh, frustration la c'est-à-dire étudiants yu Sénégal yi boo xoolee sax déjà montant bi li ñuy wax bourse c'est-à-dire que c'est peut ay 2 pour cent seen ay besoins. Mm-hmm. bourse fii nañu xoonte dëgg mënuñu régler problème étudiant bi. da koy motiver koy stimuler tout ce que tu di ko accompagner mais hmm. mënu sax déjà régler problème bi encore que bu ko jotul tu as vu ce que ça crée comme comme désagrément hmm. comme insuffisance si étudiant bi hmm. mu andi benn sentiment de frustration ñu répondre par la violence mu loo xamante ne da nga koy sanctionner fekk ne à la source ma ne le perturbateur c'est l'État boo xoolee euh, euh, comme ni ñuy waxee l'histoire de l'immigration Euh, c'est parce qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'offre. L'État n'offre pas des, alternatives moo tax ñuy dem def immigration boo ko jëlee nga transféré ko si kii bi c'est l'État mm. qui ne crée pas des conditions qui ne respecte pas ses engagements. Papis merci donc buñ bés buñ bàbbilee mbir mi si wàllu woowu nga nga feelu ko. waaw d'accord euh, <laughs> d'accord. waaw mais bon euh, defe naa toogoon nañ fi tuuti yoo xam ne amuñu euh, amuñu en tout cas ay ay coow. Mm. au niveau de l'université. mais li koy li koy firndeel pour man dafa am ay priorité yoo xam ne état bi daf ko war a jiital. Mm-hmm. muy wàllu paj mi. muy wàllum njàng mi te est-ce que état am na xaalis pour fay étudiants yi seen bourse loolu c'est une grande question hmm. parce que tout simplement euh, priorité yi nga xam ne état bi moom lay dégager actuellement est-ce que aspiré wul un peu tout ce qu'on comme ressource ba nga xam ne yenn euh, domaines yi nga xam ne moom la ñu war a privilégier hmm. amuñu assez de moyens pour assurer ça. parce que loolu aussi euh, pour man euh, li xew université dafay dafa dafa dafa war a am benn benn recul bu état war a am pour seet est-ce que vraiment suñu ressources yu ñu am ñu ngi koy dugal fi ñu ko war a dugal. parce que njàng mi je ne parle même pas de bourse mais modernisation wu même. université ak li ñu jàng loolu priorité la war a nekk pour état hmm. fu waratuñu toll fii di wax ay waxi bourse yu ñu fayeku ñu fayul c'est-à-dire que normalement étudiants yi mën a kaas parce que dañu bëgg que université bi mu université mu am ay réformes yoo xam ne. daf ñuy tax que ni suñu njàng mi mu nekk en phase ak fi jamono toll tey. c'est-à-dire que aujourd'hui soo xoolee même euh, ci photo yi nga gis sur internet wala tout ça condition mhm. yi nga xam ne moom la étudiants yi di nekkee ci biir université yi moo lay wan que ni. on est très loin. Mhm. de comprendre un peu effectivement. fan la ñu bëgg a dem. très bien alors prof professeur. Mhm. waaw dama koy ñaawlu comme ñëpp ah gannaaw bi ñu nuyoo gars yi jaar leen. Mhm. Euh, ñu ciy wax rek mooy euh, man daf ma xaw a jaaxal. parce que lii ngay décrire nii ah, il y a 30 ans 1987 bu may dugg université. lii moo fa amoon. c'est-à-dire bu bourse waree jot mu yéex a fay toog 15 jours vingt jours un mois. ñu génn taal ay bus séquestré nañ fa ay lu ma xamul lu nekk bu fekkee loolu la ba ma fa nekkee il y a trente ans bu aujourd'hui loolu di continuer répercuté ni ko gaa waxee quelque part mm. am na un peu de légèreté de la part de l'État parce que c'est des situations yoo xam ne tout est réuni pour que mu bañ a a am mm. ou bien mën nga fay ay bourse nga affecté leen di ko fay à temps xalifa mm-hmm. ou bien mënoo fay ay bourse nga bañ ko jox nit mu toog di ko xaar te du ko jot mais l'autre grande question que ça pose ba mooy c'est la question de la gestion des effectifs yi nga xam ne moom moo nekk ci université yi mhm. parce que quoi qu'on dise université Dakar bañ koy tabax ay 1967 1968 fi mu nekk ni lim nga xam ne moom la yor ci ay étudiants waxuma dafa décuplé mais dafa centuplé donc fi mu nekk ni il est temps parce qu'on parle de 15 15 étudiants par par euh, par chambre mais loolu étudiants mooy étudiants yi nga xam ne moom ngay gis mm. am na yeneen étudiants yoo xam ne doo leen gis maanaam bu quinze yi jàngee 15 yi ñëw bu 15 yi wàccee 15 yi say ba ñeen ñëw loolu moo fa am hmm. donc loo mënta imaginer comme précarité comme difficulté moo fa nekk loolu day poser un hmm. problème de rationalisation hmm. de la gestion des effectifs de nos universités dañ ko nangu xam nga waxoon naa la ko fii il faut que ñu am courage ñu taxaw université bi ni mu mel nii mën a mënatul dem dañuy taxaw tëj ko laa la wax waxoon naa ko fi dama koy baamtu ñu repartir à zéro maanaam na nga nangu ne université Dakar sous sa forme actuelle la mu yor ci population étudiantine attanu ko. campus ba la mu yor attanu ko. alternative benn moo fi am nga ubbi beneen université boo xam ne dina ko mun a désengorger. les années se succèdent. finalement yow munoo wax ne par exemple année bi bu commencé Khalifa 2017 kañ ngay pare sa première année. pare gu loolu musiba la deuxième année fekk la fa troisième année fekk la fa ñu tàncaloo chevauché bu kañ mm, mm. il faut qu'on s'arrête ñu nangu ne lii mënta wéy bu ko defee ñu saafara ko de manière définitive bàyyi démarche politicienne très bien merci professeur alors leneen lu gën a jege mbég mooy confirmation bi confirmation bi nga xamante ne nii euh, groupe Futur Média de manière générale confirmé na ko euh, suprématie am euh, ci environnement médiatique bu Sénégal muy sondage bi nga xamante ni génne na bees ak TFM raw si télévision yi niki noonu tamit euh, RFM ci rajo yi kon ñu ngi ciy féliciter le groupe euh, Futur Média en directeur de programme ah félicitations. et félicitations à tout le personnel également de Futur Média. nëgër nii tey li ñuy waxtaanee mu ngi jëm ci at mi ñu sumb muy atum 2018 di at mi nga xam ni moom moo jiitu at mi ñu dëgmal di atum 2019. 2019 nag bu ñu ko waxee sax ñaaree am na bërëb yoo xam ne fii di dafa rëcc ana lu ko waral mooy paluk njiitu réew mi ci la ñu ko dig ñi nga xamante ne ñoo féete ci nguur gi jamono jii kàddu gi daanaka benn la mooy nu ñuy fexe ba daal di jàll première tour ñeneen ñi ñu ngay euh, dànkaafu naan dañ bëgg sàcc élection yeeg nangam sangam di way suñu candidat mel ni jamono jii dañu fàtte ñi nga xamante ni ñoom ñoo tax ñuy xëccoo boppu réew mi ñi nga xamante ni ñoom ñooy dénke muy askanu Sénégal ana seen xëccoo boobu ak euh, bëreet googu ñu Euh, bëreet daal di dëgmal 2019 lan la mën a jur si njeexital ci anam yi nga xam ne noonu la réew mi di doxee loolu moo fi euh, waral tey teewaayu euh, suñu naataango di Mamadou Thior di liggéey ci RTS mais également surtout ñëw ci kasketu CORED di kuréel gi nga xamante ne nii moom moo ëmb taskatu xibaar yi tey fexe saytu lépp lu jëm ci wàccoo ak charte yi nga xam ne moom moo tënk méccum taskatu xibaar waaye niñ ko baaxoo rek noonu lañ koy defee dañoo tàmbaliwaat fii ci ndey si si càmm gi ak biir ma Ndiaye ah, ngir mu wax ñu nan la vivre situation bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si réew mi boobaak nëgër ni muy 2019 tollaguñu ci waaye mel na ni réew mi mu ngi tàmbalee raam Ndiaye Diatta. Khalifa yow sax da ngaa gérer ndax réew maa ngi commencé raam mais dafay xam réew maa ngi nelaw. Hmm. réew mi ci nelaw la toll xam nga xalifa ñun dañoo feebar. waa Sénégal dañoo feebar feebar bu méttee métti dañu jël dañoo jël otage ñaar ñoo ñu jël otage les politiciens et les médias. expliquez-le. voilà politiciens yi médias yi ñoo leen demee doole. Hmm. xam nga xalifa boo demee en France. Hmm. am na thème yoo xam ni affaire yoo problème yoo xam ni doo ko mos a lire ci journal. tegi doo ko mos a gis. amul benn journal bu am jot am page bu ndaw bu mu la bindal yooyu politiciens yi fii boo tee sa question ni ma sëqat démb damaa gént Macky Sall wala damaa gént Ablaye Wade sëqat sama baat bes ñu bindal la ko il faut ñu ñu ñu xam ni réew du caaxaan hmm. élection ñu jiit réew campagne ñaar fan ak benn ñu dem élection ci benn fan normalement ci benn weer woowu lañ ko war a def kon ne liggéey hmm. mënuñoo fexe ba politicien bi fal boppam. Mhm. réew mi lay fal. Mhm. amul benn politicien boobu maqaama fal sa bopp. tigi rajo yi di ñoom ñooy fal. Mhm. mënuñoo fol kenn réew mi ñooy fal li ñu yow. boo taal sa di ci wax neex ki lay déglu dana déglu am déglu sa wax mais décision muy jël jël na ko boppam pare mën na ko jox. foo nit ñi xam te Sénégal dañoo yeewu. léegi xolal dangay gis ni ñëpp dem ci chantage. élection ngi ñëw ku ñu chantage réew mi. ki ne au pouvoir ne la ba dig loo xam ne xaj na sax mënu ko pour bëgg a jafando ci pouvoir bi. ki nga xam ne bëgg nguur gi heure bu xëyee au lieu sax mu bëgg réew mi ci jàmm day bëgg réew mi tàkk. waaw ana njëriñu réew mi ci biir. waaw loola réew moom ci njëriñ moo tax ma ne réew mi dafa feebar. loolu laa commencé bu ñëwee ci wàllu politique moom Sénégal daa feebar te je pense que war nañu xool suñu bopp xam nga da nga sax avant demain Khalifa bu caaxaan jeex dëgg ñun ak xamu nañu mel dañoo amul dara mais pour ñu avancer benn pas dañuy xëcc dóorante suñu biir arrière juróom-benn pas doxaat beneen pas cinq ans yi dañ ko politique. Hmm. dafa gën a takkarnaase ma jox la benn exemple xoolal bi Abdoulaye Wade di di bi élection 2012. Hmm. syndicat yi dañu doon chantage bi à l'époque boobu ngeen surtout jàngalekat yi c'est la vérité. kenn du ko bu ngeen seetloo ba bi ñuy loolu andi problème bi nga doon wax léegi nga doon wax syndicat créé ah. c'est pas l'état mooy affaire université bi dem ba année sauvagement bi am si grève saa yu bëri la woon hmm. programme bi jaxasoo oui bu ngeen fàttee en 2012 boobu la Macky Sall di fallu ñëpp yaakaar ne année blanche di am année boobu rappelé lu leen di wax hmm. tout le monde croit même si naa université aman ban kër jamono jooju damaan gëmoon ne dañoo war a am nañu tëj ko reprendre ak foofu lañ war lañ ko war a def ci ko a waxee mais 2012 bi ñuy jeexal election yi Macky Sall di falu di jël kii mois d' avril la woon ba mois d' jàng amul ci réew mi nga bëgg a négocier jàng lépp jàng mai juin juillet nga examen bëgg loolu jàng mu fa hmm. il faut ñu xam ne njàng du caaxaan hmm. commencé waat nañ ko jàng en fait da nga contextualiser li du ma hmm. ne syndicat laa nekk chantage yi commencé waat na. Hmm. te buñ ci gaawul wax ak waxtaan ak kii. ñu yàqaat njàng même rek ñu yàqaat ñu yàqaat njàng mi. ñu yàqaat njàng mi. xam nañu yàq njàng mi doomu doomu béykat bi nga xam ni. amul fu mu yóbbu doomu. non non mais c'est mais c'est très bien parce que li ngay wax ni c'est c'est un dégât collatéral mooy dégât collatéral lay aborder nii par rapport ak li ñu wax nii mais. waaye waaw. y a un problème muy je commence par fa ma nekk laay commencé. tous les syndicats yi ko wax nañu menacé. prof xaaral nañu ba nañ politique ñun ñëpp. waay mais réew mi li ñuy wax mooy réew mi. Mm-hmm. muy parti au pouvoir. muy parti opposition. Mm-hmm. kenn amul droit politiser. tigi merci. waaw mais biir ma am na loo xam ne du ma ci d' accord boo ne fi mu nekk nii gars yi commencé at nañ chantage bi. mu ngi mel ni grève bi enseignants yi di grève ay grève wu chantage. bien sûr jiitu bàyyi ma wax la lu tax du chantage. yéen a ngi koy fàttaliku bi waa jiitu nu mu doon yoon. Euh, journaliste bi Makumba Bey bi biñ ko euh, kii invité fii. Mm. DER. mu ne mu ne ma de commencé nañ grève ma ne ko la ñuy grève de mooy ba mu fi leen fi tàggoo mois de juillet dem Casamance. ba mois de décembre bii. feeñ ñu leen seen indemnité de déplacement. Hmm. mu ne ma le ministre du di mane ko ma ne ko waxuma la ministre du budget a dit dama ne. Hmm. de juillet au moment où nous parlons. waxuma lu ñu yokk waxuma avancement waxuma leneen. Hmm. waaye bag bañ demoon ak BFM ba corriger ko il y a huit mois. cela ne nous a pas été payé période bi da koy gën a exacerbé parce que c'est un peu le moment. xëy na loolu la Birima a. bu fekkee da wax léegi. Mm. ne gars ñu ngi commencé menacer. Mm. Mm. genre ñu ngi politiser seen seen revendications yi. mais est-ce que yéen a ngi fàttaliku bi ñuy fal année bi ñuy fal Macky Sall bi ñuy jógee fii Ablaye Wade. mais les syndicalistes enseignants yi. ils avaient politisé leur combat. ils étaient contre le pouvoir. très bien ils étaient contre le pouvoir. mais pas d'amalgame nañ sax ba. pas d'amalgame pas d'amalgame ba sax déggoo ak pas d'amalgame. pas rapport à ce qu'il dit. je parle pas de la légitimité des revendications. Mm. je parle de la répétition de l'histoire c'est-à-dire autant ils étaient. ils se sont ok Pape Seye xamal tax bëgguma ñu sori si parce que bon c'est vrai que c'est un débat c'est la li waaw mais damay bañ du ma nangu ne mhm. koo xam ne dafa dem ñaq noo toog pendant huit mois mhm. ne sama indemnité ngeen fay ma ko ñu bugg ko assimiler a un chantage exercé sur un état sauf mm, moom mooy droit am mm-hmm. période boobu la grève mm-hmm. bu fekkee nag en même temps yow da nga jàpp ne dans une année électorale nanga ma loolu ça ne m'intéresse pas xam nga li ma intéressé mm-hmm. ba ma demee Casamance léegi juróom-ñetti weer ñoroon ma samay <laughs> indemnité ma ko fay alors nga ne gars yi dañuy que loolu c'est penser que gars yi sont pas sérieux ils n'ont pas le sens de l'État ils ne sont pas patriotes on n'a mm. pas besoin de ce point de vue de des leçons en tout cas mënuñu leen reprocher ñu profiter du moment koo ah. xam ne yow yaa ngi koy yoral mënoo koo tere mu ñaxtu pour nga jox ko li merci merci prof merci prof booba ñu dellu siwaat si këru débat bi waaw mais parce que <laughs> en réalité mhm. ñun euh, gouvernement au Sénégal ñoom la ñu jox suñu suñuy lengeewu réew ñu yore ko ñoom ñoo am pour mhm. fexe ba nga xam ne ni dëkk bi di doxee ñu bañ ko teg fële jiital politique politique hmm. ñooñu ñoo am réponse yu ñu jox hmm. mais boo seetee un peu ni situation politique bi demee nii mais élection yi c'est dans un an opposition bi mais y a des problèmes am na parti yoo xam ne y a des problèmes te parti yoo xam ne dafa divisé wu en deux parties comme parti Birima bi euh, comme PS bu Birima hmm. comme AFP bu Moustapha Niasse bu ak ak ak Gakou bi dem donc aujourd'hui il beaucoup de de de potentiels candidats ñoo xam ne normalement aujourd'hui ñoom ñoo waroon yore raaya parti yooyu ñu foqati parti si yéen dàq ñi yóbbu marginaliser leen teg leen ne ñi ñu def leen euh, yóbbu leen ci kaso bi ñi ñu def leen nii mais ces gens là ils sont obligés du ñu xaar ba ay à un mois des élections ñuy commencé yëngu pour mu ne ni opposition bi dans un an la élection di nekk ils sont obligés ñoom de s'organiser bu fekkee ni dañuy commencé di poser ay question si ay listes électorales wala ci transparence élection yi di ñëw mais ils en ont le droit parce que tout simplement ce qui s'est passé ak élection législative yi passé opposition bi ñoom il faut que ñu teel a jóg teel a ñaxtu teel a gàn nu mu tudd ma nu mu gànkaafu euh, état bu Sénégal mais doxinu réew mi dans tout ça. mais doxinu réew mi dama ne mais le l'opposant mais il a son programme hmm. man tey jii ni amuma compte boo xam ne euh, Malick Gakou war na ma ko jox il a son parti politique il a son programme non non laisse-moi terminer da wax ba pare bàyyi nit yi jeexal. Mm, mm. dama ne la aujourd'hui mm. xam nga lan moo am solo. nit ñi nga xam ne moom la ñu jox ñoom la ñu jox suñu suñu réew. fal leen ñu jël seen responsabilité ñu jël seen responsabilité fexe ba nga xam ni. ah li leen dox pour marche dëkk dëkk bi avancé ñu jéem ko bañ a jaxase ak politique yi mais mm. on peut pas empêcher aux gens naa leen xaar li Birima wax à vingt jours ñuy doog a yëngu mais à un bi quoi c'est que ne dama dama relancer mais c'est par rapport ak euh, mm. man pour man lii mm. c'est extrêmement normal c'est normal. non c'est normal pas la question c'est. le Sénégal dans tout ça. non attends dama bëgg wax d'abord la normalité de la chose. d'abord c'est comme ça dans tous les pays presse et puis il faut dire que c'est la presse elle-même qui chauffe l'arène. Hmm. parce que boo xoolee avant même année électorale parce que il faut dire aussi que présidentielle moom mooy le plus grand rendez institutionnel dans une république c'est normal. Hmm. importance am les journalistes ñoom seen bopp ku ne ci lañ ils vont ils font allusion à une éventuelle candidature pour la la présidentielle 2019 donc c'est la presse elle-même qui est dans son rôle qui chauffe l'arène maintenant Sénégal dafa toll si benn affaire boo xam xam nga am ñaari pàcc dafa am ñoo xamante ne mhm. dañu am sensibilité politique c'est des professionnels de la politique si la ñuy dund si la ñuy xëy ci la ñuy goon ñu presse bi wax rek bañ si wax ci la euh, dund mais dafa am beneen bu am importance boo xamante ni ñoom ñooy dem sax consultation c'est-à-dire ñoom ñooy voté ñooy am carte c'est eux qui élisent en fait mm-hmm. mais ces gens-là c'est pas des politiques c'est comme toi c'est moi dañuy dem liggéey seen liggéey loo wax ñu xool ko parce qu'ils sont sénégalais xaar le jour J donc le Sénégal ne va pas s'arrêter les gens vont travailler normalement ils vont spéculer commenter comme mm-hmm. c'est l'effervescence mais il n'y a pas à s'inquiéter ça va à la très bien alors le Charles waaw Euh, xam nga euh, parti boo xamante ne au pouvoir pouvoir ah ñu nekk ñuy dem si année électorale maanaam à un an des élections euh, wax ma ban mesure impopulaire ngay jël. ah pour non. pour après, après ça dépend. pour l'intérêt général du pays. Mm. loolu nga posé. Mm-hmm, mm-hmm. léegi wax ma bi yan mesure populiste ngay jël. eh ben donc le débat est posé c'est comme ça qu'il faut le poser. donc ça veut dire que tey fu ñu toll nii c'est quoi. pour le pouvoir qui est en place c'est une question de survie politique bu ñu dépassé loolu c'est une question de survie personnelle boo déggee waxi fu mu jëm mm, mm. parce que du waxu jàmm mm. donc survie politique survie kii bu ñu xoolee lan lañ wax année sociale c'est une information de taille populiste boo koy def analyse politique simplement léegi nag ba nekk si biir année électorale dafa am loo xamante ne moom la ñuy xool mooy le processus électoral est-ce que mu jaar yoon est-ce que il y a une qualité du processus électoral mun nañ si wax est-ce que loolu lan nekk hmm. nekkaguñu si déroulé élection dañu ne si processus ga hmm. nan xool bu baax de quoi on parle aujourd'hui gedde yi fi ak yu demee noonu ñu ne leneen ñu ngi dem élection am si biir rétroviseur image boo xamante ne dalay dellu si législative yi législative yi quelle est la conclusion de ces législatives ñu hmm. ñu kontaanuñu opposition kontaanuwul société civile kontaanu ay sénégalais bi yu bëri kontaanuñu donc loolu rek may na la nga am ay calcul yu ngay def dine lan mooy velléité wu pouvoir bi est-ce que velléité pouvoir bi mooy exclure ay personnalité wala ay potentialité politique sur élection présidentielle ga hmm. forcément coow lay am si biir loolu boo xoolee loolu opposition bi moom si biir war a de xool kan mooy kàngam boo xamante ni autour de kooku la ñuy mun a dem mais du loolu rek Birima am na lu mu wax mais Sénégal rek on ne pas entre nous. dafa am ay investisseurs yoo xamante ne. dañu teg seen xaalis wala bëgg a teg seen xaalis wax ba kan mooy ñëw si dëkk boo xamante ne stabilité politique amu fa. un an élection. parce que dafa am ñaar est-ce que mun naa def ak gouvernement boo xamante ne dafay metti wala est-ce que mun naa def foo xamante ne changement gouvernement mun na am. donc on se retrouve dans une situation boo xamante ne faw ñun ñëpp ñu toog mënuñu toog xool sénégalais yi dans les yeux. ne leen annulé bi dama leen liggéey comme Papis le dit ah non mënul ne il faut que ñu waxante dëgg dëgg bi mooy lan dañuy dem élection mais il faut que mu am qualité processus électoral confiance bi ñëwaat mais il faut que réew mi continue dox mais pour que réew bi continue di dox mais xoolal rek ce qui s'est passé hier ak tey ce qui s'est passé hier ak tey rek da jox information te moi je suis d'accord un peu euh, kii ak Birima Lu dafa am loo xamante ne euh, boo xoolee mesure impopulaire booy fay di jël mesure impopulaire si jamono yi mais amul benn syndicat yi nañ gën a grève hmm. mais c'est impopulaire mais parce que dañu xam fan lañ jëm ah, on a décrété l'année 2018 une année sociale oui. mais saa da ngay jéem a ut loo xamante ne moom nga mën a yor te lan moo mun a paralyser Sénégal mais dama ko ma yàgg a wax c'est-à-dire on n'a pas le droit Sénégal fu ñu toll nii man je le conteste depuis toujours ba ñu may ne ay mille milliards budget 3700 milliards nee naa amuñu ko mais dëgg bi dañ ko wax booy lu wax sànq Euh, Bouba wax na jënd na ko est-ce qu'on a les ressources pour mm. faire face aux dépenses publiques qui sont les nôtres très bien mais waaw bu ñu amul mais nañu waxante dëgg alors moom Mamadou Thior il semble dire que c'est de bonne guerre de part et d'autre yow déjà ban analyse panoramique nga si def balaa ñuy balaa ñuy dugg si ñaari point yi biri ma posé mm-hmm. am na sànq maa maa leen di nuyu Khalifa ak yow ak ñi nga àndal euh, di rafetlu invitation bi mm-hmm. am na lu biir ma junj sànq mooy euh, otage bi nga xam ne réew mi politiciens yeeg. Mhm. journalistes yi dans une mesure jël nañ ko en otage le pays. mais surtout politiciens yi. Mhm. parce que dafay mel ni ñoom rek ñoo nekk Sénégal. Mhm. c'est-à-dire euh, dem nañ ba ñun taskaro xibaar ñu embarqué ñu. di ñu def loo. lu leen neex. ba ñu fàtte sax ne am na yeneen askanu Sénégal yu yu leen ëpp solo. parce que politique dafa nekk métier ci réew mi. te dem na ba. vraiment exemple bi ñuy jox ñi féete ndaw politiciens yi du du du du exemple bu rafet. Mm-hmm. parce que la ngay gis ci wàllu politique mooy que ne c'est un raccourci. si tu veux réussir ascension sociale si tu veux réussir vite va faire la politique. ça que à la limite tu n'as plus besoin euh, jaratul ngay dem sonn université jàng benn ar pour pour pour tekki. Mm-hmm. boo bëggee kii rek mën nga yem sax troisième su mboxloo rek dugg. léegi léegi léegi nga tekki loolu je pense que du du exemple bi gën parce que réew ay ressources humaines de qualité moom moo koy yëkkati réew réew yi mhm. jóg yëpp mhm. toujours exemple Corée du Sud bi moo gën a parce que exemple boo xam ne actuel la mhm. da ngay gis xale yi dañuy jàng ba mel ni ñu dof mais dëkk boobu dañ koy comparer ak Sénégal ñoo yemoon en 1960 fan la Corée du Sud tool tey ñun fan lañ toll loolu rek misaal la hmm. donc il faut ñu góorgóorlu ci wàllu woowu ñun taskatu xibaar ñu bàyyi xel ne politiciens yi rek nekkuñu fi hmm, hmm. war nañ leen sax mën a dumóoyu parce que man li ma gën a gëm ci wàllu fondamentaux en journalisme mooy que ne maire bi jóg fajar ci sedd bi xam nga ni seddee ci biti ngelaw bi mu jóg fajar dem dem euh, plage u euh, Soumbédioune wuti jën yéeg si oto boo xam ne mais ni muy toogee. kenn mhm. xamu ko mooy oto yi booba di wax rek. voilà oto boo xam ne doo doo doo gis sax ci biti. dem ba marché jaay ay jënam. Mm. mais loolu. man man nga cee def un bon reportage. ba ba beneen beneen genre journalistique boo xam ne ça accroche. mais am na ko doon war yéen. Mm. bon déclaration politicien rek la ñuy topp. Mm. même même bu ñuy sangu sax. ñu def ko à man li ma ci gën a métti yenn saa yi. on parle beaucoup de politique dans ce pays. absolument mënoo mënoo mënoo mënoo yeewu mënoo mënoo yeewu à la une des mm. journaux amul politique. yenn saa yi boo xoo boo booy déglu revue de da ngay dégg euh, un politique ñu waxal ko ci loo xam ne boo demee si journal ba xool fekkoo fa dara mm. loolu c'est c'est c'est yoo xam ne mu ngi fi la. il faut que wàllu woowu ñu ñu delloo si suñu suñu xel. te euh, ñun ko ret ñu ngi ci béy suñu war ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom lañ seqal bi mi parce que tey dañu am benn kuréel bu mag bu tudd CAP. mooy euh, coordination des associations des presse ñun ñooy xàcceendoo di dóorandoo. Euh, pour fexe ba métier bi fi nga xam ne foofu lañ ku nekk war a teg tànkam. mu teg fa tànkam def liggéey bi bi war. waaw bu fekkee laajte bi mooy euh, ni réew mi nga xam ne dafa taxaw. Hmm. maanaam ngay wax. Hmm. ndax euh, élection bi jëm. Birima neen dafa feebar dafa tëdd. waaw ah, je suis parfaitement d'accord avec lui. Hmm. Euh, booy maa ngi doon faral di bamtu kàddu Kéba Mbaye ba dans son fameux discours sur l'éthique. muy misaal ne boo dajee ak ñaari marocain ñuy waxtaan boo dégloo ñu ngay wax développement koom-koom. ne na boo fekkee ñaari sénégalais yi waxtaan boo dégloo ñu ngay wax waxu politique diw faral diw laa faral di xéru di ngaayoo. Kéba Mbaye déjà dans discours sur loolu day nataal. beneen bi je vais déterrer ma fameuse théorie de la fiction démocratique. ah qui m'a valu <laughs> dire que encore une fois. boo ko seetloo boo xool ni muy doxee. normalement ku nekk xam na ne élection. moom mooy respiration naturelle démocratie. mais même quand bien même respiration naturelle démocratie la. mën naa ne accident la mais accident essentiel. ça veut dire quoi que li nga xam ne moom mooy xew. en dehors de la période électorale. moo ëpp doole en principe moo war a ëpp doole li nga xam ne moom mooy xew bu mhm. élection amee mhm. parce que état fi ñu koy xaar démocratie fan lañ koy xaar mooy ki ñi nga xam ne ñoo yor réew mi di état ñu wàccoo ak li ñuy wooyee les services sociaux de base te xam nga ne loolu amul calendrier amul périodicité mm-hmm. maanaam déroulement la dans tout le temps donc bu fekkee yow da nga xool ñun ni ñuy doxee dafa nekk une inversion du paradigme mm. ça veut dire quoi li nga xam ne moo nekkoon un accident quand même la ñu jël ko def ko essence li nga moo nekkoon essence ñu ko def ko accident mm. boo ko defee buy tax tu ne plus lire moo tax booy xool boo naan calendrier démocratique calendrier man dama ne ana ban mm. parce que démocratie boo xam ne dafa tax ñëpp tënk takk loxo yi takk tànk yi naka woykat bi waxee jébalu ci politiciens yi nga xam ne bu 2019 passé ñu ngi naan 2024 bu 2024 passé à quel moment est-ce que l'on travaille ça veut oh, li nga xam ne hmm. moom la ñuy xaar ci démocratie ci état boo tax ñu sos ko hmm. mooy mu wàccoo ak ak ak yelef yi nga xam ne moo gën a élémentaire hmm. ci dundu doomi aadama te loolu amu fi te loolu boo ko seetloo ni koy coor junjee ak mbir ma yëpp c'est que dañu dem ba finalement euh, ñu gis ne gannaaw politique amul beneen buntu boo xam ne moom ngay mën a jaar pour mhm. yaa ngi koy fàttaliku may cokkaas bu ba ca jamono moo contre moo ma lay wax ne malheureusement dans <laughs> dans ce pays là tant que véritablement on considérera que la politique c' est le moyen le plus commode mhm. le moyen le plus sûr pour nga réussir à ce moment il va de soi que kenn dootul am mën a cultiver verti njàng mhm. kenn du cultiver verti effort kenn du cultiver verti maanaam nga entrepreneur sa mhm. bopp tekkil sa bopp waaye da ngay xaar rek te prof loolu du dëgg waaw mais loolu du dëgg moo tax may la li ci ëpp mooy du dëgg mais prof mais lu ngay wax mm. n'a pas instruit cultivé. éduqué mais Sall Sall xoolal xoolal li xew. xoolal juste il n'en a pas besoin xam nga lu tax il n'en a pas besoin. mais mais mooy fondamentaux yi. waaw mooy fondamentaux falaa njëkkee falaa njëkkee. bu ko amul kon jën tàkk nañu. falaa njëkkee mais boo gisee loolu amu fi. brillance ah. boobu ngay wax kon loolu amu fi. non non pas tu le sais très bien. oui je le sais très bien maanaam dañ ko waxante si dëgg. Hmm. tu n'as pas besoin d'être brillant. tu n'as pas besoin d'être porteur d'un projet de société. avant il faut juste être un aventurier. mais il faut juste non seulement être un aventurier est-ce qu'il faut pas être un brigand au fond. dans l'âme <laughs> un brigand non mais c'est vrai. ça veut dire très clairement quoi. <laughs> ça veut dire clairement non c'est vrai. <laughs> boo ko seetlu dañu waxante dëgg rek. ailleurs on vient en politique ñëwee la yow tradition de gauche nga tradition de droite nga cest dire fa nga bokk déjà da nga porteur d'un certain nombre de valeurs hmm. yoo xam ne dafay am jeexital ci sa action politique maanaam ñii bu fekkee gauche lañ fekkee bu ñëwee santé éducation dañ koy dooleel hmm. bu fekkee extrême droite la yeneen programme la ñuy doxal ça veut dire quoi yow da am une âme hmm. politique d'abord et après nekk quelqu'un qui agit réellement de façon concrète mais loolu yëpp dafay amul comme ni la ko waxee misaal bi ngay mën a am waa ji day takk saagam takk wólisam taxaw ci tali bi di xaar cortège bi ñëw mu fexe bu am langaam bu am benn tànk ci marché bi bi après mu foto ko bu waaji foloo mu ne wa ngay jaar Medina Gounass man maa taxawoon ni ak samay ñooñ su ko defee dafa am lu may laaj pour nga jël travaille hmm. hmm. def ko une hmm. ñan ñoo ko defoon une vertu mooy ni ñuy woyte duñ ñan ji yaa ngi fàttaliku ma la koy wax ne la sëñ Touba ne la ñoom dañoo dem ba travail mystique lañ ko def. ñàkk jëruñu lañ dem. Mm. xar suuf si béy ko mu naat ñu jël mais loolu yëpp dañ koy woy di ko tàccoo di ko conférencé gars yi di àllu mais dundewuñu ko jëfewuñu ko mm. la ñu gëm mooy la alal ñëpp moom mën naa fexe bu ma jël ci li nga xam ne moom mooy la gën a dund mm. dëgg kenn ko defade réew musiba la quoi man man en tout cas man lu ma si lu ma si yokkaat moom mooy soo xoolee un peu euh, nga jël sax par rapport ak opposition ak li nga xam ne moom moo gën a euh, nekk coow au devant de la scène ci wàllum politique aussi euh, il faut ñu situer responsabilité yi oui. parce que aujourd'hui dañu am benn génération bu bees de ñoo xam ni ñoom ñoo war a nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy figure opposition bi boo seetee li ëpp coow ci mbirum politique fii c'est des politiciens yoo xam ne dañ leen empêcher ñu avancer état bi am na ci responsabilité parti politique yu mag yi am nañ ci responsabilité aujourd'hui ñu wax coowu Sénégalu politique te génnewuñ ci le problème du PS je reviens sur ça et le problème ay AFP ay affaire parce que tout simplement qu'est-ce qui se passe ces gens-là suñu jógul xeex pendant trois ans pour am occuper yenn responsabilité yi du sotti dañu am benn blocage boo xam ne hmm. y a des démocraties war a am ci parti yi hmm. gaa yi jël parti politique yi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk force opposition bi xoj leen ba parti yooyu existé wuñu nit ñi nga xam ne am nañu ambition ils sont obligés de de se battre et de fair du bruit pour exister loolu moom moo am solo dafa am dafa am ay paramètres yoo xam ne il faut ñu il faut ñu sóoraale ko aujourd'hui mm-hmm. parti yi nga xam ne ñoo fi nekk parti yu mag waroon symboliser opposition wu Sénégal yu si gën a bëri ak avec l'aide du pouvoir quand ah ñi nga xam ne ñooy aspirer à ces postes là. dañ leen bloqué te ces gens là. Hmm. ils ont besoin de temps. pour xeex te xeex boobu. effectivement média rek moo ko mënal. donc loolu bu leen jël ngeen teg ko. nële bu wax nii est-ce que profil bi muy dressé est-ce dafa doon fekk xëy na politicien bañ a mel ni ñu ko décrire léegi ci réew mi est-ce que boobu la doon gën a valable parce que li muy wax nii lu yanu maanaa la mais est que maanaa gi mu yanu méngoo ak ni li fiy politique jamono ji quoi. bi. li ma tax a jóg mooy ñu xool politique en son ensemble. dëgg la politique ci moom. bi nga xam ne fa lañ jëm. ban impact la suñu économie réew. de de loolu c' est pas ça non. ah ça. non non non échéance bi non non non échéance bi. non non mais c' ça mais écoutez écoutez écoutez moi xam nga la mooy la xam nga la mooy la thème mooy effectivement li mu wax ni politique bi globalement ni muy doxee. ak échéance bi ak ak contexte bi ñu nekk muy année préélectorale. voilà moom la ñu wax lan moo si njeexital ci réew mi. c'est ça loolu la c'est ah tout loolu la xalaat donc dama wax ni. Mm. xam nga politicien. Mm. boo nee boo solee mante politicien rek amoo immunité comme yow immunité parlementaire immunité générale bu resté loolu en France. kañ ñun moom la jëlee ci démocratie comme yow la jàngee démocratie comme on dit à un mois des élections entendre nañu un candidat wax xam ñëpp yaakaar ne moo war a nekk président de la République France française fi la fekk yëpp. Hmm. jiñ ko sàcc jiñ ko détournement jëli ko di ko entendre. waaye justice mënoo mënoo fexe ba ñu ne juste xaaral. Hmm. xëy politique. xam nga xam nga avec la France peut mooy ñoom duñu duñu jàpp ne rap dañuy mise en examen. waaw non waaw da da peut-être rap bi xëy na mooy problème quoi. xam nga dañuy rap bi du léegi tey. xam nga hmm. tey tey mënoo jël ak kan tey tey jii ñu def à huit mois des élections kan dàpp doo xëy xëy tey tey ko yàq à mon avis hmm. wala mu def loo xam ne flagrant la ñu jàpp ñëpp jàpp hmm. te ñi ñi bari ñu ci jàpp amul kenn ku taxaw déclarer sa candidature biñ la biñ lay jàpp dañ lay jàpp ba pare nga déclarer sa candidature hmm. war ngaa man ne kanam xalaat nit la nag par exemple Bouba Ndour mën na xalaat ni Khalifa Diakhaté mooy candidat potentiel réew mi suba loolu point de vue am la man mën naa jàpp ne candidat donc loolu jugement de personne la c'est pas hmm. grave mais li ëpp solo mooy acte yi nga xam ne moom la di ki teg posé man candidat laay doon dat sàngam ñi ñuy jàpp ñëpp ñi leen di jàpp néew ñu candidat lañ waaw ça c'est un fait kenn ko dindi ñi fi jàpp ñëpp tey dëgg la kenn taxawul ni candidat ñu soog laa jàpp hmm. dañ laay jàpp ba pare nga ni candidat la hmm. ça aussi il faut faire la part des choses beneen bi non c'est pas n'importe quoi c'est des faits li mu wax c'est des faits. ñoo ko fekkee c'est pas n'importe quoi. wax ju egg dof yee ko moom. Ah, waaw dama waxuma dama ne wax ju egg dof cest à que li ngay junj nii. d'accord ma ak yow benn yoon parce que effectivement man pas di waxu tëj dama ne la absence de démocratie yi ci parti bi moo ñu indil ñii yëpp parti yi dañu war a bàyyi jën yi ak. conséquence la aussi. conséquence la dama mm. parti bu amul démocratie boppam lay rey réew mi amul de. dama ni dama ni xam nga mooy démocrate ci parti ci sama xam-xam bu gàtt ci politique. mooy ñi seq parti ba parce que parti du ñëpp ci bokk. ñi seq parti ba. ñi fa ëpp décision bañ jël. loolu mooy la majorité loolu kay mooy. démocratie loolu mooy parti ba dëgg la. bu dee amul waa parti ñoo koy liyee seen bopp. Mhm. bu doon coow la yam du la mhm. parti coow la xam ñu ngi biir parti socialiste. Mhm. waa parti intérêt social bi nga xam ne bokkul parti socialiste. maintenant nag ki nekk parti socialiste di aspirer yor réew mi ni muy joxale ak ni muy waxee intéressé na Charles. parce que dafa jóg pour nekk dama laa bëgg a jiite ëllëg. doxinam ak waxinam. dafa intéressé les sénégalais. bokkul ak nag parti bi dans son ensemble. donc c' très important ñu def la part des choses. je pense que amoon mon avis. li ñu war a def man li ma ëppal solo ci fii. mooy guñu ku kii war na nekk candidat ki nekk candidat loolu Sénégal ñoo koy départage. mais bu ñuy politique war nañu sauvegarder suñu ba di ko Charles waxee investisseurs yi ñoo gën a mën a wóolu suñu réew mhm. parce que bu élection yi passé la lendemain Sénégal day kon ne di dox dañuy fay ay salaire mhm. dañuy fay njàng dañuy fay bourse dañuy fay nang te loolu xaalis da koy def mhm. donc je pense que mën nañu politique mënuñoo fexe ba opposition moom. heure bu yeewoo daan li parti au pouvoir def baaxul. parti au pouvoir li muy heure bu xëyee day wane ni. Mm. maa gën opposition loolu. débat la boo xam ne partout dans le monde. moo fa nekk kenn ko tere tere les acteurs politiques. merci merci mais li jàpp solo mooy lan ban ci réew. très bien ci doon jàpp effectivement ça c'est-à-dire que. Mm-hmm. bu ñu duggee ci logique AFP ni ko gérer PS ni ñu ko gérer ak yooyu. Euh, c'est vrai que c'est important c'est des partis majeurs ci dëkk bi lañ bokk mais day mhm. fausser un peu les du débat parce que yow débat bi ni nga ko posé mooy très clairement mhm. comment le peuple lui-même est pris en otage par toute la classe politique mhm. en général comment on se débrouille pour que question essentielle yi nga xam ne moom lañ soxla pour suqali réew mi ñu koy teg fële bu ñu fàtte si ñëf la ñoo leen koy dénk c'est ça donc hmm. foofu d'accord naag bi ne monsieur Kouak loolu mooy orientation hmm. générale question bi mooy ni réew mi ne tekk kenn liggéeyatul hmm. ku nekk naan 2019 bu 2019 jotee nga ne ku nekk naan 2024 wax mais boo gisee li ma ciy yokk rek c'est vrai que moom li moo wax am na solo parti yi nekk ji di soox PS AFP d'accord mais man mi nga xam ne bokkuma PS bokkuma ah, AFP de ce strict point de vue ça m'intéresse je prends en charge la classe politique en général muy PS muy PDS muy AFP muy APR ni ñu jëlee en otage le pays bàyyi yenn questions yi en en suspens pour des questions d'ordre électoral réew mi topp waaye boo xam nga hmm. le boo ko seetloo Khalifa lii gën a répondre à ta préoccupation bi ngay poser question boo ko seetloo xam nga lan la mooy échec des politiques publiques hmm. ah boo gisee gars yi mabb yaakaar ne fee la boo sombiwul ci géew bi doo am dara mais parce que dañ la offrir alternative hmm. buñ la offroon alternative nga xam ne boo feebaroo carrément nga mën a faju mais ça devient culturel. mais ça devient conjoncturel. pas ouais. conjoncturel ça devient même culturel. Oui. parce que pratique la boo xam ne de 1960 ba aujourd'hui moo fi nekk. culturel alors. ça veut dire que c'est mm. ça inscrit malheureusement dans l'inconscient même collectif bi sénégalais mu jàpp ne tant que soobuwuma ci biir géewu politique bi mënuma tekki. Mm. mais loolu boo gisee échec laa la wax des en matière de développement. Mm. moo tax gars gis nga réew moo xam ne soxaleku na. gars yi di dóor waar comme ni ñu koy wax di 24 heures sur 24. Mhm. boo jógee fii mën a liggéey fële. gars yi boo ñëwee di leen wax politique talluñu la. parce que am nañ ca lu ñu jàpp. kon nag la question fondamentale. Oui. il faut réconcilier l'État avec ses missions primaires élémentaires de prise en charge des besoins sociaux de base loolu mooy tax politique jeex. waay Thior dama bëgg ñu taxaw si il faut une vraie politique pour tuer la politique et la faire waxaatal waxaatal waxaatal prof une vraie politique pour tuer la politique et la refaire naître ah, loolu jekk na jekk na te dëgg la de bu ñu rayul li fi nekk leneen du am alors Thior li li biir moo sànq c'est essentiel dafa dafa ko teg si ñaari fànn chantage mhm. yoo xam ne acteurs yi politique bi la ak presse bi léegi dama bëgg ñu taxaw si média bi loolu est-ce que yow d'accord déjà d'accord nga si point de vue boobu waaw maa ngi ko doon junj sax euh, loolu d' accord naa ci biir moom parce que hmm. xam nga. mais chantage enfin chantage. ah oui oui le mot n'est pas fort. parce que parce parce que. c'est le mot. y hmm. de de couple boo xam ne mooy couple couple politicien ak une certaine presse hein, parce que il faut pas aussi généraliser. bon ñi nga xam ne il font ils font dans la facilité. et euh, li ñuy wax mooy que ne dem nañ li ma doon junj sànq ba foog ne boo yëngatu ci politique mënoo mënoo tekki. te loolu moo moo baaxul presse bi aussi une certaine presse bëgg a gomle loolu lañ. nañ une certaine presse war ngeen see jóg. une certaine ci loolu une certaine presse waxi lan la ci lool yenn taskatu xibaar yi yenn taskatu xibaar parce que xam xam nga li li li li am bi am mooy xalifa hmm. euh, suñ suñ métier bi. Hmm. dafa yàqu. tigi te li ko yàq mooy que ne loi bi ñu tënk xam ngeen ne déggu ngeen coow bi judoon daaw. Hmm. daf nañ fi ay marche ba ba ñu woote code de la presse mm. mais xoolal bañ ko wootee ba léegi mois de juin mm. ba léegi mënuñ ko appliquer ndax la mm. ay décret d'application mm-hmm. décret d'application bi jublooguñ ci sax ñun liñ ci waroon def nañ ko ñu ñun waa mm-hmm. parce que décret d'application yi décret yi président de la république moo koy signé mm-hmm. buñ buñ ci buñ buñ ci càmbaree ba pare euh, arrêté yi ministre bi nga xam ne moo moo ñu yilif di Abdoulaye Bibi Baldé actuellement moom moo moom mooy signé arrêté yooyu donc li nga xam ne mooy mooy yéexal yenn loi sax si wàllu woowu la di nga wote ab loi damay joxe misaalu loi d'orientation agro-sylvo-pastorale wote nañ ko daanaka presque fukki at ñu toog fukki at doo ko appliqué parce que décret d'application yi dafa dafa yéex. de bii de c'est assez ñu ngi ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu tasuma vaar. nañ si biñ ko wotee pare mois de diggante mois de septembre ak novembre bi passé te ay yoon yoon. Mm. donc ñun euh, xalaat nañ li nga xam ne moom la ñu war dugal si décret yi. Mm. wax ne nii lañ ko gisee donc li ci des mooy que ne. li nga xam ne nag njiitu réew moom moo ko moom mm. ñoom ñoo war a def seen liggéey ci wàllu woowu ki nga xam ne mooy ministère la communication itam def def liggéeyam avant may ñëw sa si kii bi mm. ñu ngi doon laajte comité bi nga xam ne dañ dañu war a tëral benn comité pour mu càmbar wàllu woowu décret yi ak arrêté d'application yi parce que parfois parfois euh, comme comme li biir ma doon wax mhm. parfois euh, il paraît que gars yi allo yor naa benn dossier si yow comment on fait waaw loolu moom chantage la mais man mosuma gis mosuma ko dégg. donc donc mënuma ko firndeel. loolu mais j'en entends parler. loo loolu loolu moom euh, bon c'est souvent sax ñi nga xam ne sax euh, seen xamam màccu ci wàllu wi. Mhm. xam nañ ne saa yi laa dañ dañ koy wax. man maa ngi doon seetaan fan fan yële benn euh, film sax thème yooyu lañ doon abordé. Mhm. donc dem nañ ba ñu banaliser ko. mais ci ci wàll woowu mooy que ne ma dellu ci loi bi nga xam ne moom moo ñu toog di di eh, de la presse bi ci wàll woowu bu ñu demee ba vraiment métier bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a nekk des ci yooyu yëpp amaana kenn kii nul n'est parfait mais gëm naa ne dina wàññeeku bu baax a baax parce que xam nga bon ku jóg ne journaliste la mhm. te du du taskatu xibaar loolu moo mooy indil musiba mhm. naaru laay mhm. parce que yow bu fekkee ne yow métier bi xamoo li nga xam ne moom moom la laaj fondamentaux yi mais lu nekk dañ la koy def loo te da nga koy def te boo bëggee loo xam ne xaalis bu yomb aussi bon ku lu waay mënti indi bu la bu la bind bu la bindloo ma la pour saaga saaga saaga euh, beneen nit loolu yenn saa yi koy gis te loolu du suñu du suñu cër journaliste. am na sax coolu fi amoon d'ailleurs euh, benn presse bu ñu incriminé ne ay policiers ñoo ko créé pour muy waatee pour après ñu waaw y' a y' comme ça. donc tout ça c'est quand même inquiétant. mais mais il faut d'où l'urgence des d'application là il faut ñu mm-hmm. ñu assainir. Mm-hmm. donc ñun li nga xam ne xam nga yaa ngi doon année année il faut ñu fexe ba fii ba fii ba près du mois de juin euh, sori na sax mais mais mais code de la presse bi. décret yi mën a génn ak arrêté yi ñu mën koo commencé appliquer parce que war nañ koo mën a appliquer pour si li nga xam ne moom nga doon junj euh, déwén bi nga xam ne ñu ngi ciy jëm te mu nekk année boo xam ne année électorale année électorale boo xam ne di euh, fole woote fal njiitu réew mi dafa am solo ci mm-hmm. ci ci ëllëgu réew mi parce que juste Charles juste rappeler que euh, code boobu voté ko mm-hmm. dafay renforcer la liberté de la presse parce que la liberté c'est pas non seulement de la presse mais day day dooleel presse parce que tey xam nga aussi Hmm? xool xoolal xool xool. day renforcer liberté de la presse non j'entends liberté dans le vrai sens du mot parce que liberté. ku la neex nga wax ku la neex nga saaga. Ah. li am ah. ah, Birima Birima tu sais quand xam nga yow nooy libéré. Hmm. bu fekkente nii def nga tourné nga fëgg mbaj hmm. papis papis Diaw nga fëgg ka mbaj tu es de le faire mais à du moment où fëgg nga ka mbaj libératoo nipp lañ lay def yóbbu waroo kaa yaa ngi maa dégg wax ji donc liberté mooy li nga xamante ne waroo kaa def doo ko def loolu mooy liberté. ci wàllu consolider liberté on est liberté bi mu ngi ci. da koy consolider mais aussi day day may doole. organe de presse yi. parce que xam nga xoolal fan yére rek ñu ngi doon waa Nouvelle Horizon tëj nañ. Mhm. bi ñu defee lu ñaar fukki at. parce que dañ nekk ci ay jafe-jafe. te organe de presse yu bëri dañuy tëj te ay nit ñoo fay liggéey nag. loolu ci wàllu woowu code de la presse bu bees bi itam dañ ne il faut ñu fexe ba nguur gi jàpp jàpp jàpp def genre plan Marshall. Mhm. maanaam ñu def ay milliards yu bëri nga xam ne du loo xaalis boo xam ne dañ koy jox gars yi ñu kii mais xaalis boo xam ne dañ ko dañ leen koy dimbale ñu dem liggéey mm-hmm. bu ko defee ñu mën a ñu mën a ñëw dellu delloo xaalis mm-hmm. parce que ci wàllu woowu dañ gëm ne dafa am solo beneen mbir mi nga xam ne am na solo wax na juñ naa décret d'application yooyu mooy plan Marshall bi mm-hmm. beneen mbir mi nga xam ne moo ñu ñor tey mooy maison de la presse bi nekk si corniche bi. maison de la presse bi. nguur plan Marshal Thior waxal plan. plan Diegane kay. waaw a pas de mais <laughs> waaw bala bala mm. wàllu maison la presse bi. Mm. nguur gi wax nañ leen ne amul benn dëkk ci àdduna. Mali bi ñu jege barki dem rek la ñu renouvelé ki jiite maison de la presse si si ñun la bokk. Mm. fii lañ gis maison de la presse. ñu ñu ñu bedd ñu si gestion bi. wax nañ ko waxati ko te duñ ci duñ ci dellu ginnaaw. nañ gën a nañ gën a ñëwaat si débat nañ nañ ñu ko delloo. mais c'est très très important ñu mën ko gérer suñu bopp. Mm. dafa am xam nga man dafa am dama bokk si ñoo xamante ne duñ ma nelawloo. Mm. Euh, ma liberté ça veut dire ma liberté xanaa ñu xañ ma ko. Mm. mais Sénégal bi suma liberté mu ngi daw. je suis un homme libre et un journaliste libre. awma problème ak parce que tu es responsable waaw nag bu dee doon journaliste tu n'es pas responsable na nga changé métier dem def leneen hmm. mooy <coughs> dafa am ñaar Khalifa fii laa la toog wax nul fii que la publicité était le sponsor de la démocratie nga hmm. ne ma déet waaw hmm. ah, tu m'as expliqué après dama la expliqué dafa am solo xam nga boo jëlee publicité nga ne par exemple publicité ma jël soixante dix wala ma jël quatre vingt pour cent wala ma jox ko à la presse privée qui est la pluralité Hmm. des point de vue j'ai bâti ma ma lu mu tudd ma, ma démocratie hmm. kooku benn la ça dépend dama la ne dafa am foo xamante ne homme d'état non il faut que tu il faut que nga expliquer waaw parce que parce que xam nga tu me convaincre waaw waaw non parce que da may couper la parole assez souvent nguur yi nekk média ñu nekk ay privé ñun ñëpp ay privé média d'état benn nga am ñu ñëpp ay privé lañu nga xamante ni que ay investissement la ñu ñu am cent milliards wala dix milliards nga ne ko yow comme maa ngi lay jox cinq milliards par an damay jël sept milliards si dix milliards publicité yi jox ko ñii pour ñu mën a dund. quand bien même que faruñu ak man parce que yow lu ngay def mun nga am loo xamante ne mun naa ko jaarale si yow c'est normal mais ñii non. Mm-hmm. donc donc donc dama ne loolu tax ma ne c'est un sponsor attention. lu ma wax. en fait le sponsor bi lañ def entre lañ def entre crochet. Ah, non le sponsor entre crochet il faut bien comprendre hmm. j'ai dit le sponsor. je ne pas dire l'équité. na am naa ci hmm. xalaat dama ah, ne sponsor. waaw kooku mën nañ si kii parce que dafay gàtt beneen affaire bi je vais te dire pourquoi. Hmm. dañuy fo. dafa am ñaari attitude. un homme d'État ou un homme politique. les rendez-vous ne sont pas les mêmes. damay jël tey par exemple APS agence de presse sénégalaise boobu nga xamante ne. toutes les informations en continu dans la journée sur la net c'est-à-dire avec l'APS t mooy le temps réel te égale zéro espace égale zéro mais légalise ya ngi may dégg hmm. te égale zéro espace égale zéro jamono yu ñu te digital mooy mooy temps t zéro hmm, hmm. nga jël ko moom jox ko information yoo xamante ne toute la journée et elle devient la source man yu may du may liggéey nekk reporter et tout mënuma jóg le matin te ubbiwuma APS parce que si moom laay xool fu ma jëm ak lu may def ak yu demee noonu APS joxatuma loolu mu nekk source bu doy waar nga yor RTS boo xamante ne si yenn affaire yoo xamante ne moom moo ko mën a def dans l' intérieur du pays di dem di nekk beneen source dafa am ay financement yoo xamante ne boo ko defee foofu jox nga ma l' activité de tous les ministères de toutes les directions et ainsi de suite mm-hmm. donc de point de vue yan rendez-vous la ñu am ak l'opinion yan rendez-vous lañu am ak sénégalais yi léegi c'est des rendez-vous dama lay jox benn exemple bu simple je te défie mm. nga jël tous les journaux de ce pays la pendant une semaine mm. boo si génnee boo si génnee le soleil génn si peut-être à une exception près le sud wala le quotidien tu n'as pas d'économie alors dis-moi dans un pays on... non dama lay wax. dis-moi dans un pays non waaw mais attends ça montre quoi. Oui. montre quoi nous sommes dans le sensationnel ça veut dire amuñu benn njëriñ pour suñu dëkk. Mm, amuñu benn njëriñ pour suñu émergence. et ainsi de suite. c'est ce que ça veut dire bi ma xalaat bi si amoon wax wax. non dama wax réew. doo ci wax jàmmi réew. Mm-hmm. ak stabilité réew. état du ñu seet ay rajo privé ak télévision privé yoo xam ne tey élection jotagul dafa am na télévision yoo xam ne bu état jur ay matukaayam léegi li ma wax xam nga ma dama waxoon naa ci yaay jaam ngeen ni amul naa waxaat tey bu état jurul ay matukaayam dès maintenant bu ne élection yi des na trois minutes trois jours wala deux jours da nga organe yoo xam ne nañ jóg pour créer soulèvement populaire lu leer laa lay wax tu penses que ces médias war nañ leen jox suñu xaalis mais c'est du journalisme bi leneen la loolu leneen la dama ne dama du ñu may doole ku taal suñu réew. dama du ñu taal ñuy du ñu may doole bu ngeen bëggee. média privé ñu ah, respecté leen. tey da ngay xool li nga yow dox de presse. mais da ngay xool revue de presse xam da ngay déglu léegi jàppal dama de presse am na ci yoo xam ne jàpp leen du ñëpp ah. Hmm. da ngay déglu waa ji na wax trois minutes wala deux minutes ci benn thème nga dem ubbi journal doo ci gis loolu. loolu lu mu doon. ah xawmuñu ko li ma tey sax am na. man dégg naa tey ci presse ma dem jëndi journal bi. lan ma wax lan wax yëpp nag ci journal bi. te dafa tudd turu journal bi ne nangam lañ fi bind. waay mu intéressé ma dem jëndi ko tey tey tey. Hmm. je te am na. c'est un péché capital donc loolu xam nga. loolu parce que day xam ni. Hmm. il faut du ñëpp parce que nag. amul mbaax moom mënul général bon mënul nekk lu général. Hmm. mais il faut que boog lu ëpp ñuy liggéey ci média yi. wala ñu moom organes yi bañ ñuy hmm. manipuler ñu fay liggéey ñu fu leen neex bëgg naa nga wax la ma nangam ma fay la nga wax la neex wala ma jox la fausse information nga yàkkamti jéemoo def recoupement sax. Hmm. dóor ko ci yëf il faut ñu revoirat presse bi deuxièmement. non kenn du presse bi de xam na la ñu def. il faut il faut il faut décret d'application yi ñu signé leen. Ah, alors d'accord naa du dëgg. xool kese la pour la bu ñu jëlee waaw tu vois la parole bi yow kii xaaral waaw. mooy loo xam ni mënuñu ko séddoo dañ ko bokk dañ ko téye ñun ñëpp. tigi politique fal njiitu réew waru mën a diviser le Sénégal. d'accord naa. dëgg la kay wuru mën a bloqué le Sénégal dëgg la dama ne la réew yëpp ay politique ñëpp a ngi fal seen i président seen réew day dox économie Sénégal mën na dox bu ma sañoon sax xam nga wax nga léegi yow lu tal ni problème bu Casamance hmm. mais problème Sénégal yëpp la tigi c'est du sérieux tigi ñu fekk ay jeunes yu liggéey ñu rey leen hmm. média am na fii ay problème yu am dans un pays hmm. doo gis benn média wax ci non mën nañ non dañ siy wax mais avec responsabilité avec mesure du wax xam nga tey Sénégal rek ngay gis tey bu fusillé woon léegi ay Sénégalais nii nga gis ñu filmer corps bi filmer nañ ko suulee. non non loolu leneen la. waaw dama non la bokk. Hmm. baaxul. loolu ndax ci seetaan ci may seetaan. dana Sénégal la ngay tàkk. Hmm. dëgg la il faut ñoo mën a protéger économie réew mi. Hmm. waaw mais euh, xam lan la ñu war a wax. mais attention parce que am na nu ñuy nu ñuy nu ñuy waxee affaire Casamance bi. mais day mel ni guerre civile la am Casamance. dëgg la or amu fa. mais Birima loolu foog gis foog gis foog gis ki ko bind il n'est pas formé. Hmm. wax ji loolu la. ah euh, mais man man man man man xam nga lan laa comprendre. Hmm. pourquoi ñu bëgg jël média bi def ko au centre de ce de ce problème là c'est-à-dire que aujourd'hui quand tu prends l'opposition l'opposition au Sénégal depuis Sénégal am ay partis politiques ba léegi n'a jamais eu accès aux médias publics. publics loolooy dëgg. il faut ñu am seen seen espace d'expression aujourd'hui bu ñu tolloo fii am fi ñaari ñaari alternance heureusement que ñu am presse privée. loolu la suñu compté woon suñu compté woon si li nga xam ne moom mooy moom mooy presse euh, kii bi public bi dara duñ ko am aujourd'hui quand Charles dit que boo ubbul soleil fekkoo fa économie soo demul RTS fekkoo fa économie c'est parce que tout ce qui touche à l'état du Sénégal on privilégie le média public le média privé doit aller chercher des informations aujourd'hui un un un politique qui veut exister qui est euh, dans l'opposition si bu fekkee ni wekkuwul si média privé il n'existe pas 2012 yàggu fi rien n'a changé entre 2012 ak léegi léegi président Macky Sall pour mu jël réew mi toogul xaar euh, euh, un mois mu dem sa stratégie bi ñu ko reconnaître moom mooy que pendant des années il a sillonné le pays la diaspora pour tisser toilam bu ko may pouvoir aujourd'hui on ne peut pas prendre les médias naan leen lii ak lële man xamulu ma xam dañoo fal gouvernement état moom moo war a def ba li nga xam ni mooy politique bi nga xam ne moo war a doxal économie réew mi mu assurer ko mais cette opposition la doit exister et a du mal à exister parce que y a beaucoup de problèmes yoo xam ne loxo état génn ci te loolu aujourd'hui man la presse sénégalaise mais quand même quoi qu'on puisse dire il faut pas ñu jël lépp yëpp sànni ko c'est-à-dire quand on parle de la Casamance je suis je suis pas d'accord ak ay naan boo nee guerre am mais on a tué ils en ont parlé taw kenn waxu fi lu ay wax yu ëpp li fa am nañ fa wax gars yi euh, même non non non rey nañu ay nit c'est-à-dire on peut a lu am c'est-à-dire affaire traitement la ñu traitement de l'information laisse-moi traitement de l'information ma ni ma ni gënoo ma xam ma ma eggal li ma dama ne dama ne aujourd'hui ma ma eggal mais laisse-moi terminer mais laisse-moi terminer bi ngay wax dama la tax ba nga déglu ba pare ah, ba ma déglu ba dama ne dama ne ay jël ay rajo privé yuy taal réew wekk ay kii ay kii ak télé privé dama ne la rajo privé yi ngeen di def allusion déglu ma demal Rwanda demal fële laaj leen rajo privé rajo privé rajo privé ak télé privé yi ngeen di loolu wéri de buuba waa agalil rajo privé ak télévision privé yi ngeen di def allusion am na benn moment on a eu besoin d'eux. oui c'est pas le mais non aujourd'hui xam nga lu ma xam yaa de. de génnuma gaam. Ah, xam nga xam lan laa xam. xam nga lan laa xam. waaw da ne dëkk bi dafa war a dox. waaw économie dafa war a dox. Mhm. Ah, par rapport ak échéance yi di ñëw. Mhm. dañu jël nguur jox ko suñu réew. nañu ko doxal opposition doit exister la presse doit exister loolu dafa am mais il faut a ma rek. te man te propos moi j'ai pas besoin. waaw déglu non non non j'ai pas besoin qu'on wax benn mot. Bouba da nga wax benn mot bu am solo waaw da nga wax benn baat bu am mais c'est tout le débat bu ba loolu la ñuy wax nii mais c'est ce que j'expliquais mais loolu laa wax sànq sànq sànq xara waaw waxal après xam xam nga loolu wax sànq waay exister ñoo tax a ah, si exister bi Charles danañ war a exister justement xam nga xam nga nous sommes de la presse privée di nekk si biir di di liggéey hmm. di dem outil marché mu am sa réalité mais on se rend et dans certains pays que pour que cette presse privée là mun a def liggéeyam il faut que ñu teg nag cadrage boo xamante ne da koy def mun a mu am ñuy conseiller politique yoo xamante ne ñu ngi au pouvoir mm-hmm. bu groupe Futur Média am affaire yi bu Walfadjri am affaire yi bu ñeneen ñi des médias et institut am affaire yi ñu nekk si situation boo xamante ne léwatoo rek ngay def nga jël lépp jox ko média d'état loolu tax mën na la quand tu veux savoir quelle est ta démocratie dis-moi quelle est ta démocratie quest lépp dafa ñu jël euh, euh, lépp qu'est-ce que t'entends par lépp Charles que t'entends par lépp qu'est-ce que par lépp mais Victor lépp attention quand on te dit par exemple la publicité sur l'audiovisuel est de milliards sur les 7 milliards bu ñu xamee ñu am nga xam kan moo jël lu si des. très bien alors Charles ba tey tonton existé bi laa bëgg. Ah, nan la war a existé nan war a mais comment. Euh, voilà c'est toujours dans le cadre du thème dans le on toujours. en phase par l'abstrait parce hmm. parce que dafa génn ci suñu débat. Hmm. et dafa nekk sax ci biir ci intitulé question bi mhm. ça veut dire ne yow sa problématique mooy <laughs> le Sénégal ni mu nekkee en otage des politiques mënoo ci jëlee la presse c'est pas possible tigi tigi tigi et le c'est d'une part kenn du taxaw di discours ci njëriñu presse ah dans une démocratie ça je que dépassé nañ foofu quand parce que ku nekk xam na ne euh, wax dëgg yàlla sans presse moom démocratie mm. boo déggee feneen ñu naan ko le quatrième pouvoir boo déggee yéen réew mm, mm. ay États-Unis ak France ak ñaan quatrième pouvoir mais ça veut ko wax yàlla presque taxaw na dëgër laay boo xam mm. mais loolu du ñu tere quand bien même dañuy rafetlu ne ba presse privée juddoo autour des années 93 euh, vraiment ñuy rendre hommage ñi nga xam ne ñoo créé la première radio privée de ce pays là muy Sud FM Sud FM, mais ce sont des gens qui ont révolutionné waxatuma too sàcc élection waaye pour nga sàcc ko dina jafe. loolu kenn mënu ko lié. waaw non je parle des premiers. Hmm. bu ma nee les premiers c'est sud. ñoo fi nekk xam nga l'alternance c'est boole sud ak Walf ñoom ñëpp. Euh, boo gisee may insisté sur euh, sud. parce que njëkk a osé rompre le mhm. lien ombilical. waaw courage intellectuel boobu. mais amuloon publicité. parce que xam nga elle a même été combattue. Charles Faye ma yegg dinaa jëm foofu. dara ah, naa la jox parenthèse même sud dañ ko rey. oui sous le régime PDS on s'est hmm. évertué a massacrer sous le PDS un fleuron de la presse sénégalaise de Sud FM. Hmm. on rend hommage au patriotisme de ces gens-là. dañoo langaamu ñu couper leen les vivres partout Sud FM. tenir leen en otage. Hmm. pour briser sous le PDS. même terrain bañ moomoon sax ne mm. gars yi dañ ko hypothèque ko pour duñ dem parce que dañ leen percevoir comme les ennemis de la démocratie qui absolument léegi li ma lay waxal rapidement ci tënk mooy mm. kenn mënta mm. ñaawlu na nga xam ne tey noonu la presse bi fonctionner. Oh, mais prof xam xam nga ba tey ba tey ba tey ça ça nous ramène. non ça nous ramène pas. falaa jëm sud. Hmm? boo da ngay wax da ngay wax ay références boo sud. waaw wax ay Babacar Touré da wax. ay Mamles Camara. Camara tous ces la presse. après Ibrahima Bakhoum Sidi Gaye bu ma daanal di am li wax. Hmm. cest dire à partir de là presse bi. Mm. mais tout le monde voulait devenir journaliste. Mm-hmm. sa élèves yëpp lañ leen laaj fan la ñuy defee école de formation pour nekk journaliste. parce que fascination bi ñoo ñu exercer. mu dem ba def ni naturellement mu indi ay dérives. ca mm-hmm. mot contre mot encore une fois pour faire un clin d'œil à gauche. lu ma la fi waxoon en parlant lu ma en parlant des des enseignants. dama ne des criminels de la CREI. man jàngalekat la. waaw ma ne des criminels de lu ma la waxoon ca presse ba. des yoo xam ne da ngay def criminel des micros yooyu ci criminel de la des cré lañu lañu lañ benn la ils sont issus du pays moo tax ma commencé jàngal la faillite moom man la commencé di nga jàngal ni mu def ko commencé non non leen jàngal loolu ba ma koy wax Boubacar la laa doon wax dama ne dañoo yegg si benn moment ñu ne enseignant jaratul ñu koy former c' mu neex rek ñu dem jël la daga ci classe yi. Mm. am ñun génération on n'est pas des génies dañ ñoo tàggat ñii tàggatuñu leen. Mm, mm. presse ba boo fa demoon. da ngay génnee sesti dañ la doon tàggat mbaa nga génnee ca booba Babacar Diop promotion. mbaa nga génnee ca Mame Less Dia. Canard euh, nu mu tuddati Cafard euh, libéré. waaw école des virtuoses des monstres boo fa génnee. qui a le minimum pour exercer ton métier. tigi tigi loolu dafay jóg donc boo ko seetloo dérive bi nga xam ne moom moo am. Mm-hmm. c' est parce que dañoo dem tomber dans le piège inverse piège inverse mooy au départ tu es fasciné tu viens là-dedans mais ni nga ciy ñëwee sans les outils et les armes qui te permettent d'exercer ce métier-là ça donne ce que ça donne non non li mu wax li mu wax dafa am solo xam nga bu il euh, y a quelques années ci ginnaaw hmm. dañu amoon ay références dans le métier ñoo xam ne vraiment boo leen dégloo tu as hmm. envie de devenir journaliste hmm. mais bon nivellement bi dem na de telle sorte que <laughs> bon ñu encouragé médiocrité bi de sorte que bon loolu ça commence à disparaître mais li ngeen doon wax sànq dafa am euh, parce que mu ngi doon junju CESTI man CESTI laa génne ak mm. journaliste yu bëri si si réew mi mm. CESTI boo gisee li tax ba quand même en termes de qualité def nañ ci jéego bu rëy booy dugg dafa am concours d'entrée c'est-à-dire dañuy segg ah. Ah. parce que segg boobu déjà euh, hmm. bon waxuñ ne ñu ñi fay ñu koy jàll yëpp ils seront bons hmm. mais quand même euh, quatre-vingts pour cent hmm. dinañ baax ils ont un bon niveau de départ mais boo jëlee yenn école privée yi et ça d'ailleurs dans le cadre du projet code la presse bi wax nañ ko waxati ko ñun on va être plus regardant si euh, li nga xam ne moom lañ fay moom la ñuy jàngale si école de formation à fait parce que gis nañ am na école yu bëri dañuy naan journalisme la ñuy def mais defuñu benn jàngaluñu dara ci journaliste mm. tasum fa jàngaluñu fi dara mm. di encaisser xaalisu xale yi mm. étudiants yi te dugaluñu seen bopp loo xam ne lu jëm si tasum xibaar donc xam nga xam nga loolu c'est une grosse arnaque te si wàll woowu après day génn naan journaliste la xamu xamul ani si métier bi mm-hmm. donc loolu il faut il faut il faut qu'on te wax mm-hmm. nañ ko mu leer mm-hmm. donc désormais bu ñu wotee loi bi si wàllu li nga xam la ñuy jàngale si il faudrait ñu imposer une sélection par rapport même au niveau à la maîtrise de la langue parce que am na am na am ñoo am ne dañ am na ñoo xam ne kon gars yi duñ wax wolof bi langue de travail la on est d'accord mais tu n'as pas été codifié en wolof loo bëggee def langue de travail wolof Charles déglu ma au Sénégal mais que ce à la rajo waa ah, déglu ma. que la presse audiovisuelle sal déglu ma. naa la déglu de. déglu ma la presse audiovisuelle au Sénégal nous avons deux ah, langues de travail waa déglu ma. déglu la rek. nous avons deux langues de travail le français et le wolof. Mhm. tënkal ma ko par conséquent par conséquent képp koo xamante ne nii. yaa ngi bëgg a dugg si métier mi. Mhm. war nañ laa xool ndax ñaari kàllaama yooyu. mokkal nga leen loolu mooy dëgg. et minimum comme comme niñ koy defee baccalauréat bi c'est il faut il le le baccalauréat mais si beaucoup beaucoup d'écoles privées de formation. ça se demandait si étudiants am nañ baccalauréat et c'est un problème parce que parce que métier bi dañuy métier boo xam ne. Mhm. il faut un minimum de bagage intellectuel. parce que il faut parler. mais c'est pas le procès la presse parce que politicien lañ doon wax la loolu essentiellement. Mhm. c'est quel que soit les problèmes dérivés am ak ah il faut reconnaître comme on dirait bu ñu wax wàllu police ah on a une presse d'abord qui n'est pas une exception au niveau mondial mm-hmm. c'est vrai il y a rien de singulier lu extraordinaire mais on a une bonne presse au Sénégal ça il faut globalement qu'on l'accepte euh, beneen affaire bi mooy euh, sur l'histoire du genre journalistique parce que dañuy jël benn genre journalistique bu def tendance par exemple la revue de presse mm-hmm. ñu jël ko ñu ñu circonscrire tous les mots autour de sa mais pense que là dañuy convoquer waat c'est la responsabilité son rôle c'est-à-dire euh, une proposition informative wala euh, production de façon globale dafa am ay gens journalistes yu bëri si boole dafay dafay large mm-hmm. la presse à l'obligation de de de diversifier sa proposition et, mm-hmm. ses offres mooy li ngay wax ay dafa war économie bi c'est pas son rôle dans euh, ne la son rôle c'est d'accompagner l'économie non il propose propose un pan dans ses pans par exemple un aspect économique les économistes yi ci seen bopp. non laisse-moi terminer. bariwul bariwul li nga wax ni bariwul ñaar la. ñaar la genre informatif. waaw genre libre. libre léegi léegi léegi presse bi moom moom moom son rôle c'est de proposer c'est de diversifier mhm. maintenant nag Sénégal yi ak lecteurs yi ñoom ñooy xool lu leen si euh, waaw maintenant maintenant mhm. Mhm. Euh, leneen lii moom dama si insister orientation politique bi dafa am ay soubassement presque commerciaux peut-être parce que bu fekkee ne yoon boo ñëwoon tey jii nga dem si géej bi nga def à la une ne lii mooy sama une xëy na gars yi duñ la RP ils vont pas te reprendre parce qu'il y a pas de sensationnel tu parles d'environnement benn benn garab par exemple nga def ko la une c'est extrêmement important l'environnement c'est un exemple que sauf je donne si comme ça sauf si le talent y je parle de la une qui est l'appel dama une bi boo defee une bi fii par exemple gars yi dañ koy mais dañ koy dañ koy banaliser mais quand c'est quand c'est people si c'est incitatif quand c'est people quand c'est sensationnel là il faut il faut Khalifa tu as fait la RP loolu mooy dëgg man def naa RP presque deux ans si awa Walfadjri mais c'est la tendance quand tu ne parles pas de de sensationnel de truc je suis il y a une influence non li ma wax c'est vrai Papis je vais être provocateur dama lay wax dama lay wax benn affaire boo xamante ne génn na dans la presse il y a un sondage qui accrédite le candidat Macky Sall de 62 points. Mm. de pour la donc le présidentiel 2019. oui ah bon c'est normal. ok c'est évident ça. dafa am fu mu jógee. suuf sa kenn xamul kan moo ko def kenn xamul kan moo ko def kenn xamul échantillonnage ba xamul ban période lañ ko def donc xamuñu si daal amul référence kon. dafa amul benn référence. pour yow. non eh quand je lis le papier dama attention. dama wax dafa leer. Hmm. dama ne dafa am kayit bu ma liir. ñu ne président bi day gagner 60 pour cent mooy je reviens à ce que tu a dit au départ que au départ il a un politique et il a la presse ñu jox ma information si biir kenn waxuma ban age cabinet moo ko def la source kenn waxuma ko la source ah, si biir waxuñu ma ga c'est le ma non ça a été repris c'est pas benn journal ça pas mal de titres hmm. pour te dire à l'origine ban journal moo ko. dafa am benn journal non non non je veux dire non dama la bëgg wax rek. Mm-hmm. ça renvoie à quoi mooy li ngay wax. c'est les enjeux électoraux par rapport à la question initiale. pour qu'on revienne pour qu'on revienne mm. quand même. mooy question essentielle. <coughs> sénégalais lu mu mënee dem liggéey. si aller préélectoral gu mhm. mel nii ñu leen di convoquer si loo xamante ne moom mooy suñu jour le mooy suñu quotidien alors que gars yi ñu ngi ñuy yóbbu si ay terrain yoo xamante ne alors Thiaw da nga bëggoon rebondir balaa may jeexal papis kañ laa nga ci wàllu une une côté euh, yenn cas yi ñuy xëyee mhm. dañ dem ba imposer ñu tyrannie la mel maintenant mhm. mais mais bien vrai mën nga dem si booru géej gi mais def def fa ah benn benn. Ah reportage j'ai dit j'ai dit dama ne la. je suis d'accord à 1000% je te jure dama ne la. c'est pas que ça soit pas pertinent. c'est pas c'est pas une question de pertinent dama ne la. tu prends benn maire. mais parce que nous avons tous fait la FP. loolu lañ ñu tàmmal. dañ ñu ko tàmmal dañ ñu ko tàmmal ci wàllu ci wàllu ci wàllu économie yow yow journaliste nga tu es très intéressé par les questions d'environnement ma bind def benn émission tout dépend de la façon dont tu abordes la ci wàllu ci wàllu ci wàllu journaliste picc y a des choses intéressantes yoo xam ne mën nga koo mais ça n'intéresse pas tout le parce que si si wàllu boobu dañu war warut a découragé. c'est-à-dire rek moom moo fi mën a actualité. loolu moom loolu. mais attendez attendez coor coor li muy wax ni mooy. au lieu que bi di dicter la loi dañ koy dicter loi ni muy liggéeyee. loolu nag ñàkk formation moo koy indi. il faut ñu dégloo il faut ñu dégloo. xam xaaral xaaral xaaral bir ma. xam-xamu. ñëw na Sénégal yi tey lii laa leen indil. indépendance policier amul indépendance benn policier amul indépendance léegi policier mooy toog këram ne tey Khalifa lii laa bëgg mu waxal ma ko. da koy wax. déedéet si du xalifa mii de. non non non non ça passe pas c'est par les politiciens. non je te jure. non journaliste exagéré un peu. dama ne boo bind léegi tey. dama ne caricature la waaye. mais pas loin de la vérité tout de même. non attention léegi. du sax xalaat ak sax xam-xam ngay jox Sénégal le matin. yeewoo xalifa. mais c'est la vérité. il dérive mooy xëy tey ne fii laa jëm bu ñu woon léegi da bu Idrissa Seck taxawoon di mais parce que c'est Idrissa Seck c'est normal. waaw non non non non ah, mais li li li li loolu boo jëlee la tendance. Mm-hmm. du marché. Mm-hmm. le marché. du marché. Mm-hmm. la tendance di marché. fa nga jëm. mais tu oublies li Thior wax. dans le substrat mooy que am naa rôle d'information mais am naa rôle également d'éducation. d'éducation. tigi ah tigi tigi tigi. ce n'est pas parce que bu ma titré ci Birima tout le monde va l'acheter que je vais raconter n'importe quoi sur Birima pour qu'on achète mon journal. la prostitution. ce n'est pas parce que quand je parle d'un homme politique en titre ma jox la exemple simple de euh, benn titre. Mhm. ça me vient comme ça du ma tudd source bi Abdou en prison la une. ah ouais je l'ai ça c'était track ça prof man ma koy wax Abdou Diouf yàgg na arrêté ma man ci car rapide yàgg na ma daw na saa may ma wàcc. 99 <laughs> Abdou Diouf arrêté. 99 Abdou Diouf arrêté xam nga lu ci bind. ma ubbi le lutteur Abdou Diouf quoi ah. dans. <laughs> mais c'est vrai c'était track ça c'était track à l'époque. c'est de l'escroquerie c'est pas vrai c'est de l'escroquerie c'est du racolage c'est pas du journalisme. mais Birima boo gisee Abdou Diouf arrêté pour man tukki. non non man pour man. waaw professeur eh, eh, xaaral ko xaaral kii wax. boobu nga wax ñaari phrase. waaw waa ji ndàmbale woon xëccoo xaw ma ko léegi teel am. prof mayel bu ma wax lan la si waaw am naa lu ma bëgg a wax. waaw xoola pour man loolu. loolu c'est du génie. ah waaw aywa mais bàyyi ma ma bàyyi ma ma dafa jàngul métier mi. non non bàyyi ma ma wax. bàyyi ma wax bàyyi ma wax. merci. bàyyi ma wax. non j'ai dit escroquerie. non non bàyyi ma wax lu tax. non bàyyi ma wax. lu tax c'est du génie. Abdou Diouf. Abdou Diouf la tudd. waaw nekk un lutteur. c'est pas une personne lambda. qu'on mette à la une. Abdou Diouf yaa dara loo xam ne nekk ci dëgg la waaw mais xoola non non non c'est-à-dire que Bouba li mu wax nii on peut lui considérer en profane amul problème mais non non mais amul euh, problème heureusement parce que non parce que y a un aspect y a un aspect marketing boo xamante ne mais non mais journaliste bu am éthique du ko def mais mais bàyyi ma eggali non bàyyi ma eggali <laughs> dama ne dama ne dama ne un lutteur bu tudd Abdou Diouf parce que tout le monde mais instant rek est-ce que il est anonyme c'est d'accord c'est une célébrité Papis kan mooy célébrité Abdou Diouf boo defee Abdou Diouf man Abdou Diouf Abdou Diouf xamu kanam professeur mais gars yi c'est bon c'est bon xoolal pour man c'est bon pour man non non pour man yow businessman non non du business. Abdou Diouf bu ma di businessman la xam nga américain la. Eh, bàyyi wu ma eggali <laughs> ah bàyyi ma mu eggali. Diouf sama yow. yàlla boo nekk sama directeur boobu yàlla boo nekk sama directeur eh, boobu. dama ne man bu ma amoon journal. ñu jàpp bëri. kon kon damay bàyyi kon damay bàyyi. Abdou Diouf. billaay c'est du génie. c'est la clause de conscience. c'est du génie c'est du génie. en tout cas loolu may na la bref alors Thior Thior li bëgg ñu jeexale ka rek mooy euh, mooy euh, mooy est-ce que est-ce que Sénégal extraordinaire que Sénégal ouais ils m'ont ah ils m'ont fait descendre d'un car rapide pour acheter un journal super ça léegi Thior est-ce que Sénégal est-ce que Sénégal si surtout période yu mel nii période période électorale par rapport ak Sénégal di mu doxee ba fii est-ce que mën nañ gént benn bés ñu am opposition boo xamante ne nii day plancher di bind di jox nguur dans l'intérêt strict de la nation booba ba ñu toll si jongante. alors tu n'as pas écouté prof. c'est pas des lumières c'est mais loolu ngeen bëgg a def non non non non dama ah, ma ah, dafa am si yeneen réew. Mm-hmm. waay des questions mm-hmm. dañuy concerté wu ñëpp dem bërëb ba waxtaan ku nekk joxe sa xalaat uute naag opposition. <laughs> xam xam nga xëjoo réew. Euh, dama lay joxe. utopie la wala du utopie. non non c'est c'est c'est loo xam ne c'est c'est possible. c'est la fii fii ñuy mm-hmm. def émission bi. am na. il y a des velléités. sur mm. ce qu'on appelle euh, aux États-Unis shutdown mm. of the government. C'est-à-dire euh, <coughs> euh, le gouvernement américain n'aura plus de d'argent assez d'argent pour financer les certains services. Mm -hmm. Donc présentement Sénat bi ñu discuter pour pour un peu Absolument. éviter éviter éviter cette éventualité. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui se passe en de pareils cas? C'est-à-dire l'opposition démocrate actuellement la la majorité républicaine. Wow. la ñuy def. C'est-à-dire kii lay jox Euh, ki ki ki euh, jox jox ñu tase pour l'intérêt supérieur de la nation mm-hmm. et quand on quand on sait qui est qui est le président actuel des États-Unis Donald Trump mais ça ça veut dire que ñooñu le les démocrates même s'ils ne ne piffent pas Donald Trump dañuy xam ne seen réew moo moo leen ëppal lu nekk mm-hmm. donc ñu am esprit de dépassement te loolu dañ ci war a dañ ci war a arrivé c'est-à-dire euh, aussi ñun taskatu yaa am nañ ci wàll mais ñu ñuy jiite c'est-à-dire toujours Euh, les pays francophones en Afrique dañu war a jàng beaucoup des pays anglophones. Mhm. parce que boo boo xoolee actuel mandat président Macky Sall sept ans la. Mm. boo xoolee Nigéria gana c' est quatre ans. Mm. quatre ans c'est vite passé. Mm-hmm. et pourtant on ne dit pas campagne permanente. Mm-hmm. et euh, au gana Nana a addo il faisait le bilan il y a j'ai regardé la télévision ghanéenne mais il a si peu de temps il a fait un excellent bilan. oui. Euh, par rapport à à ce qu'il avait promis aux Ghanéens non non yow wax waxee wu ma foofu Birima je je dis par par par rapport. dama la par rapport par rapport aux anglophones. Mm. je dis euh, ils sont ils sont très pratiques. Euh, c'est-à-dire nous wax ji mu wax ji dafa dafa bëri. il faut qu'on soit plus pratique que que comme le font les anglophones parce que quatre ans. imagine quatre ans quatre ans bu nekkoon mandat mandat présidentiel quatre ans parce que da ngay naan il n'aura pas le temps de travailler et pourtant quatre ans c'est long. dans la vie d'une nation mais coor xam nga fa mu jógee. li ngay wax nii jàng nga ko colonisation bokkul. Mhm. direct rule indirect rule. ñee dañoo teel a moom seen bopp ñun dañ ñoo di ñu nambal ba léegi mooy différence bi coor c'est ça c'est ça mais c'est parce que xam nga pourquoi am situation boobu mais parce que on crée des conditions de l'insécurité sérénité mënatul am. xam hmm. nga fu ñu toll nii jamono xalaat bii di ñëw. voilà amuñu amuñu ko léegi bu bu fekkente ne on crée ces conditions loo bëggee ñu toll di waxtaan. dama lay wax benn affaire par exemple le processus électoral kan lañ hmm. bi bàyyi nañ ko. Hmm. pourtant ñu ngi si année pré-électorale. donc nit ñi xamuñu fu ñu dem. bu dee xamuñu fu ñu dem comment veux-tu qu'on se retrouve pour l'intérêt général du pays. dama la wax sànq dafa am ñaari pàcc. benn bi c'est la survie politique voire la survie simplement bu fekkee ne dafa am noo xam ne dañuy toog di la ne boo ñàkkee élection ba kaso ba nga jëm hmm. bay say nit di la ne boo ñàkkee élection ba kaso ba nga jëm hmm. non wax nañ dafa am na amoon na fi amoon na fi am na fi am na fi loolu ñuy wax voilà am na fi nga pour te dire les choses hmm. sur l'intérêt général du pays la première alternance bu ñu koy am 2000 la loo dégg ñu fi ñëw lan lañ fi wax xaalis dëkk bi amul xaalis donc ça veut dire que xaalis boobu pas dans l'intérêt du pays dañ ko dugal pour leur survie politique hmm. ñu daanu mais qu'est-ce qui s'est passé en mais président Macky Sall bu mu ñëwee ñoom dañu ne fekk ñu fi dara hmm. gars jël nañ xaalis di pasar pasar ko donc ça veut que l'intérêt général du pays n'est jamais la chose boo xamante ne moom mooy taxaw très bien très bien Bouba du utopie lu mën a nekk la non non non mais pour man dafa am ay préalable hmm. cest dire que aujourd'hui euh, am na ñoo xam ne mais ils sont moom laa lay wax ni interne yoo xam ne mooy dégâts collatéraux yi non waaw mais dama ne la attends ma expliquer la aujourd'hui xam nga ñun kan la ñu fal euh, benn Bokk Yaakaar ñoom ñoo ne ci pouvoir bi mm-hmm. ñooñu la ñu fal opposition bi ils sont pas obligés de faire ça dama ne aujourd'hui l'opposition ñoom ils sont à la mais non mais comme quoi comme quoi mais dis-moi non mais doxal réew mi. bindu waxtaane ko. waaw mais non bindu moom laa lay wax nii. ma ne aujourd'hui tu ne peux politicien bu bëgg a. ma ne tu ne ne peux yi ngay wax nii dañ koy relégué second plan. ma ne tu ne yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au devant de la scène ci politique bu Sénégal ñi nga dàq ñu dàq leen parti yi dañ leen dëgg nañ waxante dëgg. aujourd'hui wax jooju munoo fa dem te woo ma ma mais laisse-moi terminer non non non bul bul ma dagg. bul ma ma ti dama ne dama ne ñooñu ñooñu ñu dàq ci parti yi. oui ah Mali Gakou. Euh, euh, Khalifa Sall euh, Aïssata Tall Sall. Barthélemy Barthélemy Dias. oui c'est des ñooñu ay major player lañu ci ci ci. oui mais sauf max yow. max yow max yow max yow max yow nga xam ne ñun max yow duñ dara ah. mais max yow luñ ak ñu mën a jote maa ngi yow émission bi jotee damay ñëw toog def ko. parce que c'est l'intérêt de la nation. non non non non non maa liggéey bi moo ñu liggéey la def fii ñee liggéey ñu ñee c'est ah, pour ñaan pour sénégalais non mais dama ne aujourd'hui aujourd'hui les mani li ma leen di wax da koy bañ a dégg les conditions. ne sont pas ne sont pas réunis pour que gars yi toog autour d'une table parce que y a des problèmes réels. yoo xam ne c'est causé par des frustrations internes dans les partis. da ngeen ko mën a dindi lool wala non wala pas utopie. mais mun leen dindi lool que ñu àgg situation bu demee noonu. Euh, opposition bi war a mën a jël seen responsabilité parfois bu ñu gisee luy jëmee kanam ñu bind ko joxe. ndax mën nañu fa àgg deux mille deux mille dix-huit. en tant que sénégalais oui c'est ça la cohérence. Hmm. en tant que sénégalais en tant que sénégalais. non xam nga xam nga euh, fan laay jël exemple bu concret rek. Hmm. bu concret euh, boo ñëwee sur le Euh, Ali Haïdar par exemple. waaw nga. il a été dans dans l'opposition dans le pouvoir machin mais. Mm. dans ses engagements et ses combats écologiques. ñëwoon na ba mu nekkee ministre par exemple pour kaaw mm. Casamance bi. Mm. daf ko alerté woon wax y a une mafia. tigi mais dénoncé ko en tant que ministre ñu ne dafa bëri histoire dafa lii mais li mu waxoon aujourd'hui ça c'est mais mais le colonel donc donc dama ne nga nekk dans une. posture wala dara da nga moralement pour man moralement tu as l'obligation bu dee réew mi la ñor la ñor moralement maintenant waaw maintenant par rapport ak stratégie wala sa ay sa ay intérêt ay les contextes ay autant de facteurs qui mm-hmm. peuvent un peu faire évoluer wala changer les choses mm-hmm. mais de façon basique war nga andi proposition si si ça va dans le sens des mm. intérêts de ton pays waxuma la dama jàllale politique dafa def ci ci biir la nekk. jiitaluñu intere réew mi avant suñuy intérêt groupe wala suñu intérêt bopp. mais duñ mën a avancer te lool ci loolu la nekk. bu fekkoon ni parti politique yi dañoo xam ni tey bu yàqoo xam nga tey bu yàqoo tey ba yàqu. nga war a gouverner suba yaay gën a sonn doo hmm. boo gisee lu yàq yaa war a njëkk a jóg au lieu ngay taxaw ci def porte comme ñu wax porte presse mais dem vers aussi ubbi ay buntam accepter l'opposition ñu mën a waxtaan. Hmm. pour li jëriñ réew mi. parce que tey parti bi mu neex. mu hmm. naqari am na date line bu Macky Sall di yem. par exemple si si question Casamance bi loolu waroon mën a nekk la. mais loolu moom ñëpp ci war a wax. Hmm. te loolu sax aussi boo seetloo quand même boo seetloo boo seetloo non loolu mais qu'est-ce que vous voulez l'opposition a parlé mais mais mais mais en gros li ci ëpp solo mooy. muy opposition muy pouvoir boo seet local wax ci doole yëpp ci liy defar liy defar Casamance lay jëm. génn hmm. yenn tête brûlée la ngay gis yoo wax yu ëpp la parti yi. Hmm. en defar lañ jëm ko ci sorantewuñ ak ak ak état bi hmm, wax. xam ne moom xamuñu dañuy ba dañuy bombardé loolu fépp ci solo mooy en tout cas bilan yu baax yi am yi am tey. bu ñu opposition bokkoon dina am tey. ah yi Macky Sall tuddee rek bilan bilan ah, bi euh, merci beaucoup merci beaucoup. Euh, madame Fall madame Fall bi paase wax benn réew je peux pas que dama fàtte. mais euh, bu fi ñëwaatee dinañu ko gën a leeral quatre ans boo defee quatre ans mënoo def deux mandats consécutifs da ngay def quatre ans dem sa yoon. mais mën nga ñëwaat un second mandat pour un second mandat. mais après les quatre ans. Mm-hmm. loolu bu amoon. ku fi toog quatre ans di nga liggéey. est-ce que je, euh, je pense que euh, am na Chili. Chili c'est ça c'est Chili Chili waaw Chili la. parce que Sébastien Piñera moom moom moo fal woon il y a quatre ans. absolument donc Michel Bachelet jël. c'est ça Sébastien waaw waaw les boobu ku fi def 4 ans sa yoon après boo ñëw non ce que je veux dire non Charles dama ne tant que xam nga lu muy jur tant ça boo faloo yaa ngi xool nooy def ba faluwaat. bu ko defee dootoo fexe. il y a une différence. Euh, waa déglu ma si bon loolu après ay point de vue la. ay point de vue la ku nekk proposition boobu am na beneen actuellement. président euh, Patrice Talon li mu mm. wax mooy que ne mandat unique. dafa ne moom dafa dafa ne cinq ans waaw bu ko defee kenn du la santage yow boo cinq liggéey mhm. liggéey liggéey liggéey dem sa yoon boo bëggee mën nga ñëwaat mais bu keneen bu keneen bu keneen faluwaatee man maa ngi nekk bu bari bu Poutine bu Poutine on verra ba bu Poutine Poutine c'est particulier <laughs> waxoo si point bi de euh, temps bi xawoon na xoj mais li ma ciy wax rek mooy li ngay wax Euh, am na benn préalable bu boo junj mooy lan. Mm-hmm. il faut nga réformer le Sénégalais d'abord. Mm-hmm. il faut que <laughs> le Sénégalais le Sénégalais cest dire il faut qu'il cesse de penser que. non politiquewul tekkiwoo non mm. dëgg il faut qu'il cesse de penser que. moo moo politiquewul man du dara. Mm. donc loolu tant dindi woo culture boobu. mooy indi xëccoo ko il que professeur ah, il faut réalité bi euh, dañu en réalité loolu boo ko defee am ko aussi. waaw Charles foo ñu bàyyi couple te ñu jox loolu baax. merci bës boo amee politique président boo xamante ne nee na gouvernement bi treize personnes ko passé ma joxe parole imam ma ne mu ngi taxaw ah d'accord waaw ko passé hmm. waaw mun yaa ngi poli yaa ngi état très bien boo amee quarante euh, ministre yaa ngi politique très bien bokkul non euh, balaa may jeexal euh, dama bëggoon a wax Bouba hmm. ci sànq bi muy junj wàllu presse je pense presse publique ak presse euh, mm. donc euh, que souvent opposition bi amuñu amuñu kii si presse publique bi mm. par exemple vraiment c'est c'est des choses à relativiser mm. parce que gis na ci ñaari presse a de très bons journalistes il y a de mauvais journalistes et moi je dis toujours il une formule que Abdoulaye avait utilisée en parlant des magistrats la question indépendance si nit ki la dépendre soo bëggee indépendant organe bu ñu la dem bu ñu la yóbbu di nga indépendant di nga def sa liggéey bu la neexee directeur RTS bu defee je suis parfaitement pas d'accord bu la neexee mais laissez le finir parce que wax ji non non non on n'est pas d'accord on va laisser terminer gars yi Birima Birima laajoo dara Birima laajoo tous déedéet waxtu bi jeex na bàyyi ko mu àggali attendez non non non c'est bon Charles Charles bon gars yi boo nga ni la mais bàyyi di wax fii bàyyi saa yi na comme moom bàyyi ma xam ma birima Macky Sall moo ma ko de eh Macky Sall moo ma ko wax moo ma ko moo ko yilif ma bi eh, coupel ma micro bi ah, ma ko waaw coor waaw non loolu laa doon attirer attention. coupez ma coupez ma micro Bouba aussi. donc donc donc question de. waaw. Charles Faye mais gars yi fini la wax. il faut même relativiser les sama gars yi sama gars yi déglu leen damaa demaat de. parce que tu peux pas ay dama dem dugal ne yéen a war a ñaan waaw waaw noppi leen kay waaw waxal je je dis chantage kii la bonne graine est livrée foo foo dem si ñaari côté yëpp la am donc itam ci wàllu c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit on n'a pas dit ça j'ai pas dit ça non dafa ne Charles non dafa ne dafa ne waxuma loolu dafa ne ay dóor amu leen liberté Georges je vais te remercier comprendre nga gars yi parce que parce que très franchement très franchement bu ngeen continuer mais man dinaa jëlaat. am na est-ce qu'il la liberté. très bien est-ce que Thior la liberté de. la liberté de jouer Thior. Thior a dit la conquiert. on va laisser terminer. waaw donc si si si wàllu donc dama dama dalal xelam rek. daal loo sama xel <laughs> c'est c'est des c'est des préjugés les gens ont. oui parce que c'est la réalité. Bouba dama lay bayone. Bouba Bouba damay taf ay préju ay le pays le pays avance. Hmm. suñu démocratie day avance on a combien hmm. d'alternances deux. waaw donc li li li li ce qui était valable en quatre-vingt-dix-neuf Charles bi moi une pizza Walfadjri waaw donc on parle de du média public non média public bi daf mu ngi changé opposition amul ak ci média bi changé na mais y a pas de non amul amul non je à la RTS les gens sont très on est très merci beaucoup merci on est très indépendant merci non non non merci beaucoup vous êtes indépendant et professionnel par contre waxoo gars yi gars yi déglu leen mooy. professionnel bi coor coor man maa lay waxal coor bàyyi ma waxal vous êtes professionnel vous êtes indépendant. vous avez une ligne éditoriale. et ça c'est professionnel. on comprend voilà allez allez donc ñu ñëw partie merci coor au revoir. bi julul